tey moom tey moom euh, par exemple dañ ñëw uniquement pour bégal gaa yi. mais dafa am lu ma benn waay wax quoi. Hmm. munu ma Lamine mën na ko naa mu ne ma yaa ngi déconné de mën na ko déconné c'est-à-dire mu ne ma yow xam nga ni per per bu xam du ñëw. am <laughs> ah, lu tax per du ñëw <laughs> te sama dëkkandoo. non sa sax sama gaay dëkkandoo àq la sax di même bu dul gaayeen gi sax dëkkandoo rek àq na ci dëgg la tey fi mu ne nii man jege nga ma jege goo xam ni tey. Hmm? par exemple tey yàlla tere bu dara ne woon tërëb sama kër. ña nekk ngumba bala ñoo agsi yow nga agsi te li ne ci yow moo ne ci man. képp kero ba ngay jël soxna maa ngi yow fi ne. wax dëgg buñ commencé bu buñ commencé nañ dañ ma xool ma xool. yaa ngi ci. 129 129. nañ xaar tuuti nañ nañ nañ xaar tuuti gaaw leen gaaw mais ba pare en même temps mm-hmm. ñu dem abonné di ci Songuanté TV ci YouTube bi ñu def S E accent gi Songuanté TV. 1000 francs yàpp ak 9000 francs ñeex <laughs> te nañ bàyyi laaj <laughs> non non. <laughs> <laughs> bàyyi laaj non mais loolu foog ba foog deux cent cinquante abonnés yi ñëw ba pare bu deux bu deux cent cinquante abonnés duggee ma may leen waa ji xiifoon bay bëgg a dee yor dix mille jënd mille franc yàpp ak neuf mille franc ñeex <laughs> ma wax leen fa mujjee ñeex ma <laughs> da ngay lépp wala loolu ma Kaolack kenn waxuma teg sama ba dem fa nii caravane ak bëccëgu naaju tàng jër kenn waxuma ah baax na nan xaarandi tuuti nan xaarandi tuuti yooyu yëpp naa leen ko nettali tey nga ne waaji ji dafa xiif léegi waa ji bi mu xiifee mu dem ci euh, forox caaya bi forox caaya neex bool daal di jënd mille francs yàpp ak 9000 francs 9000 francs ñeex la jënd lekk mille francs yàpp yi naan 9000 ñeex yi mais les conséquences loolu du ma ko nettaleegum te cent 250 duggul. non man nag wax dëgg yàlla père Bokhane bugguma 250 quoi. <laughs> non maanaam pour ñoom ñi ñooñu bu njëkkee dugg ci laa leen di may boobu. waaw am na yeneen yoo xam ne dafa am yeneen yoo xam ne uh-huh. yeneen yoo xam ne dama koo denc mm-hmm. pour bëgg a bàyyi ba nga xam ne mat naan cinq cent mm-hmm. cinq cent bu ñu nekkee en live di seetaan mm-hmm. ma may leen sàcc ba duggoon ci biir kër géwal ya waaw ñu ne deetawaay ma may leen gaynde ga màttoon waaja waaw ñu ne deetawaay ma may leen euh, euh, euh, apprenti ba duggoon ci biir keesu néew ba te poso mbaar ba di daw nekk sixième bu ñor xomm teg ci biir di daw waaw ne deetawaay am na boo xam ne ak gàmmu la woon te jigéen ñi doon togg ca waañ ca gannaaw mm-hmm. ñu ubbi benn kubéeru mbana gi teg nee ñi doon taal ñeex mi mm-hmm. far nag liiñ gi tiim euh, mbana gi yaa ngi eggali de yaa ngi eggali naa bàyyi noonu yaa naa bàyyi mais dama bëgg dama bëgg gars yi daw gaaw ci youtube bi ñu abone ci songante TV Songuanté S la S O N G U A N te accent gi Songuanté TV mm-hmm. ngeen dem abone foofu mm, tey fii day toj dana toj dana toj ndax xam nga luy toj lu tax muy toj Lamine c'est que man des fois maay namm di waxtaan ak gars yi leen bégal xam nga nun damay faral di wax naan li nu doon nit ñeenu ko def hmm. damay faral di wax toujours naan nun li nu doon hmm. maanaam doomu aadama yeenu ko def hmm. day jaadu léeg-léeg nu toog ba mu yàgg même bu nu nammee sax nu dem fenn toog dajeeg ñoom bégal leen xam nga saafonteeg ñoom kaf ak ñoom reetaan ak ñoom ndax am na ñoo xam ne bii ne xëy na namm nañ la gëj laa gis xamuñ ci loo mais day jaaju ñooñu léeg-léeg comme déjà léegi am nañ possibilité fu ci mel ne TikTok a ngi fi déjà YouTube a ngi fi Instagram ak yooyu maanaam nga dem fa bégal gaa yi maanaam bégal leen ñu reetaan tuuti ñi la namoon sax bëgg laa gis mën la gisaat tuuti reetaan bég xappi tax àdduna loolu àdduna am dégg naa reetaan day guddal fan day faj reetaan day faj gis nga euh, Lamine li gën a bon ci àdduna man nee naa du ma nangu du ma nangu xëy dem di bëgg wuti dara awma yaa ngi eggali de non maanaam yaa ngi eggali ah kon nombre non nan xaar non nan xaar nombre eggali léegi dama bëgg dama bëgg dama bëgg gars yi daw non dama bëgg gars yi daw gaaw ci ah. youtube bi boo defee youtube rek boo defee Songuanté TV rek dafay ñëw nga abonné waaw boo demee ci tiktok bi tam dafa yomb pour nga abonné dafa yomb ah, parce que parce que fi ñu toll nii mhm. pour waxante dëgg dong dong Songuanté TV ñëw na taxaw na te sénégal yi bëggal nañ ko seen bopp sénégal yi adopté nañ ko seen bopp yow it loolu it loo góorgóorlu doyul de parce que message yi nga xamante ne moom laay jot nii mhm. euh, gis nga rire c'est pour la santé mais dafa baax waaw Lamine reetaan reetaan ci boppam moo am solo reetaan day am lu muy génn ci biir nit gis nga ngay toog foo toll naan muñ rek fuñ rek nii fas sakaram ne fuñ rek kooku gis nga boo moytuwul maanaam yow xoolalay rey da am feebaru xol nit da ngay war di reetaan même bu la deful dara sax man man artiste la damay bégal nit ñi man des fois ama toog ba mu yàgg am stress par exemple tey damay génn sama téléphone par exemple dugg foo xam ne leer na ma damay ma reetaan ba doyal jàpp sama bopp ma jox la benn révélation euh, li may wax ni sama waa kër ñi may seetaan xam nañ ci dara est-ce que xam nga ni Baye Ginaar premier épisode ba dernier épisode mun naa la wax li ci am ba démb ba démb ba démb <laughs> ba démb xam nga xam nga fan ban séquence laa doon xool mooy séquence bi nga xamante ni nii Diop Fall sàcc na sa ganaar yi dem ci kër ndaw sa ba nga ah. toog ca saal ba génnee génnee pistolet ba génne ba naan ko ganaaru ganaaru ganaaru kii bi la nu mu tudd. ba torgay waaw Diop Diop ganaar gi nga kii bi ma naan bi ma naan ko Diop ko Diop tas koo tas yaakaaru yaayam. Ah. man ngay tas sama yaakaaru yaay. waaw xoolal am na ci am na ci am na ci boo xamante ni tamit. Mhm. séquence boobu man dina ma rey. mooy bi nga ñëwee bay bay mar maire mayonnaise su maire bi ba naan ko kii ah, sama nena. sama <laughs> nena kon xam nga maa ngi lay suivre. non topp nga ma topp nga ma dama lay dama koy seetaan ba man c' est pas possible. non bàyyi ganaar moom Lamine sérieusement bàyyi ganaar. moom xool 217. na ba xaar ba dem ba kii bàyyi ganaar bàyyi ganaar moom sérieusement sénégalais yëpp nangu nan kani. gars yi defal leen may may ma tuuti rek doo eggali doo eggali. Ah. doo eggali gars yi defal leen ma euh, per bu xar ay kër yu bari. dimbali leen ma de xoola père defal leen ma père bu xar ay cœur yu bari bari bari ay j'aime laa bëgg ngeen defal ma ko père bu xar quoi je vous en prie defal leen ma. père national seen seen père. seen père la seen père national universel mondial. te attention ma ma xoolal ku ci ku ci mas a fàttaliku sax lépp bu père bu xar léeboon. Ah. maanaam bu ko bundee ma may ko ko en live. ah bon waaw waaw. <laughs> maanaam ku ci fàttaliku dara ci baar bàyyi ganaar wala nga fàttaliku dara xam nga ñu ngi ñuy dégg gis nga kër yi ñi ngi dégg ñi ngi dégg moo tax ma wax loolu moo tax ma ni ñàkkul ne ci ñoom am na koo xam ne am na lu per bu xar waxoon wala am na lu per bu xar defoon hmm. tey tey mu jàkkaarloog per bëgg loolu per defaatal ko wala per waxaatal ko ko lu mu ca mënti doon bu ko bindee ci commentaire yi bu nu matee deux cent cinquante ma may leen ko surtout oh. mutafaan ta jama borom ko ko yakkune ca daw surtout ko jëma cërib may sib doom ko dog maam jaaga may saak joor maay faral di wax naan maay borom tobbeeg njabi gàddaa fek xàll mbaan kàndalaak tuubi guyóot ak bel loxor ndaat ak njaloor njeng jëw xasim ndàggantoog tukulóor tëggandogi peex taal yang-yang taal bax le yaxi ñay cuurun mbadaxun kër aram bopp coor ñandu leen ba feeb <laughs> dama ko bëgg ba ba deux cent cinquante yi mat rek non dama ko bëgg yéen ngeen xam ni ngeen xam ni lépp dëgg la tey ñu xam ni comme <laughs> quatre cent sàcc bi dañu yomb ci biir kër gi kër gi lëndëm mu xool xool xamul nu muy def mu ne na taal lampe bi pour nit xool la muy jël jaawale contact gu lampe ba ak bu machine wal ba per la dégguma de <laughs> dana sàcc bi dafa dugg ci biir kër gi di sàcc waaw kër gi lëndëm waaw mu ne na taal lampe nit pour xool ana sàcc niit contact bi mu laal ndeke bu du bu làmp ba kër gi dafa am machine wal machine wal bala taal mu tër tëri ci kër gi paa bi ak mère bi na fërëx rë mun a tekk taxaw ñu ne ko la la mu ne <laughs> damay wal mu <laughs> sàcc day sóob <laughs> da sàcc day sóob da doon sàcc yow per per per hmm. nañ compter hmm. deux cent quarante deux ah na dem ba cent cinquante gaa yaa ngi lay gaa yaa ngi lay may ay kër deux cent daal ak kër yu bëree bari na kër yu bëri abonné yi bëri ndax nag nee naa leen maanaam seen bi suñu seen la yëf yi suñu yëf la ndax àdduna la may faral di wax lamit naan mm. danoo war di jàppalante tey dimbalante te yàlla tax mm-hmm. ndax nit ku ci ne ak kum ci mënti doon ca fa nga ne bu fa sa moroom fekk si ah, per ñoo ko waxoon ñoo ko waxoon nañ ko def ñu ngi ci deux cent soixante-quatre <laughs> kon kon nan nuyoo kon salaamaaleykum mbokku internet yi ñuy suivre ci songante TV asalaamaaleykum mbokku internet yi ñuy suivre euh, ci Euh, TikTok bi Instagram bi ñoom ñëpp ñu ngi suivre en direct ñu leen di nuyu ci ngeen gi nuyoo muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. am mbégte lool dikk ak yéen ci premier émission bi nga xamante tey dama ko jagleel koo xam ne man maa ko bëggal sama bopp. man ak moom ñu bokk benn bërëbu liggéeykaay bi ñuy liggéey depuis dix ans man ak moom te bu ngeen di fàttali sama premier émission bi nga xam ne moom laa def bande annonce bi Père Boukhar moo ko def ak ñàkk ki ñaan kon tey su ma taxawalee lu mel nii. mu ñëw tey ngir dooleel ma mu ñëw tey ngir sénégalais yi nga xam ne dañu ko namm. Mm. mu ñëw ci télévision bi nga xamante mooy Songuanté TV ngir bégal ñi nga xamante ni ñoom ñooy internet yi mm. loolu sama xol sedd na ci lool may tamit di gërëm sénégalais yi ndax bi nga xamante ni taxawal na naa li sénégalais yi dañ cee jàpp sénégalais yi dañ cee taxaw mm-hmm. sénégalais dañ ko jël defal ko seen yëfu bopp mm-hmm. man moomuma ko booy xool sax slogan bi dañee c'est la télé du peuple kon peuple bi moom moo ko moom ñu delloowaat lépp peuple bi per bu xar laa dalal tey ma bàyyi ko mu nuyoo ak internautes yi nga xamante ni ñu ngi seetaan Songuanté TV. Lamine di nuyu sénégalais yëpp rek waa waaw di nuyu sénégalais yëpp vraiment di kontaan di bég ndax eh, li may faral di wax rek eh, nit moom ni ko suñu borom bindee rek noonu lay mel te fu mu mënti demit loolu rek lay wane. wax dëgg yàlla nga wan mag mbaax wan mag yaatu wan mag yiw wan mag bëgg doomu aadama waa wan maat nag ak mën a teral doomu aadama euh, euh, boo defee lu mel nii waxuma la sax euh, waay yi nu doon mais dëkkandoo rek dafa am àq dëkkandoo rek daa am àq xam nga léeg-léeg nit ñi duñu sóoraale loolu mais dëkkandoo rek daa am àq te xam nga déjà boo xoolee ndakaaru ñun dañu am problème boobu da ngay gis ku dëkk premier kii dëkk deuxième te presque lu mat juróom benni at ñu dëkk kenn du ci xam sa morom dañu gisante du duñu xamante et pourtant li jaadu woon mooy ñu xamante di saafonte di kaf di dimbalante te yàlla tax ndax tey yàlla tere bu daree ne woon bërit ca premier ba. gars yi nañu partagé koy partage wa nañ koy partagé na ko gars yi gars yi yi di partagé. waaw gars yi leen gars yi daa leen da leen partagé bu ko defee tey tey dañ ñëw rek uniquement pour bégal gars yi. uniquement pour ndax gars yi Lamine damay faral di wax naan gis nga euh, gars yi nekk nii di ñu seetaan nii Lamine. Mm-hmm. ñi nekk nii toog seen kër jël seen téléphone mënoon a seetaan leneen. Mm-hmm. si defuñu ko toog di seetaan Lamine Samba. ak per bu xar mm-hmm. maanaam ñooñu delloo leen njukkal day war mm-hmm. Lamine damay faral di wax naan gis nga nit ki siiw am tur lool mm-hmm. fu mu romb nu ne manga ah? nit ña ñoo naan manga waaye moom bis bu jàppee ni mooma dootul moom dégg nga fi ma waxee maanaam moom bis bu jàppee ni moom la du ba teg fa boppam defa ni moom la mm. rek du moom man a man a man man du man man waaw koy bàyyi bu ñu la ko waxalee sax nga ne man du man. waaw kay bu nangu. mooy tax may faral di wax naan gis nga sénégalais yi maanaam artistes yeeg animateurs yeeg musiciens yeeg ñu am tour ñi amuñu fayu sénégalais yi. ndax li ñu doon ñoom ñoo ñu ko def. day jaadu saa su ne nag ca lan nu jàppee ca lan nu xamee ca lan nu bëggee toujours ñu leen cay fekk si di leen bégal ndax nag. mënoo toog lu yàgg par exemple tey ne per bu xar nga bëgg toujours ngay dugg ci internet bi di nangam nangam jaadu adduna léeg-léeg per gis lu mel nii dem ca toog waxtaan xam nga kaf foore nit ñi xàppi bégee tuuti ndax àdduna àdduna noonu lay doxee mm. gis nga Lamine euh, euh, man damay faral di wax naan fii euh, maanaam yàlla ñépp la fi nekkal mm-hmm. suñu borom ñépp la fi nekkal mais mm-hmm. kenn ku ci ne mm-hmm. daa am lu la suñu borom jagleel day def kii maçon def kii tailleur def kii menuisier def kii ab comédien xam nga la def kii bureaucrate def kii technicien kenn ku ci ne maanaam day am lu mu lay jagleel hmm. yow li mu la jagleel bu la ko jagleelee nga defa ne nag yow loolee sax moomee la hmm. nga ne ca ngugg ak moom di ca def lu la saf suñ borom bu ko neexee mën na koo rocc roof ko ca keneen te doo ci mën dara hmm. loolu laay faral di wax yéen loolu laay faral di wax yenn acteurs yeeg yenn artistes yi bu ñu waxee mën leen artist day woyof artiste day wàcce bopp boppam artiste day woyof loolu mooy artiste ki la gën a wàcce boppam gën laa woyof kooku moo la gën di artiste mais artiste du balballu artiste du fuuy di dox di bondeeg wala këran kërën jaay non non non loolu du jikkooy artiste te xam naa loolu ca kanam danañ ci ñëw ndax dèjà li tax dinañ ci ñëw mooy foog na waxtaan ci wàllu xam nga téléfilm yi bari na nanu boo xoolee téléfilm yi bari nanu acteur yi bari nanu actrices yi bari na nu par exemple dafa am ay différence dafa bari loo xam ni bien par ay dafa bari loo xam ni maanaam waaye waaye waaye waaye waaye waaw waaw c'est que dafa dafa xam nga xam nga dafa bari loo xam ni maanaam dafa bari lu dafa bari lu ñuy gis ci télé bi mm. te xëy na nit ki seetaan mm. il faut nit ki ci xam tuuti mm. wala ki ci xaw a xam dara sax moom moo mën a ñëw leeral ko ca pour kooka mën a xam xam nga des fois nga gis artiste comédiens yi par exemple di dal euh, animateurs yi ci télé yi naan waru ñoo jouer théâtre wala di dal mannequin yi naan waruñoo jouer théâtre ñoom ñoo yàq aar bi léegi te or que pourtant waruñu leen a dal par exemple animateur bi war na dem jouer ji film. Mm-hmm. war na jouer war na nekk acteur jouer xam nga li la wax. kon jamono comme jamono bi Viviane way wayloo woon animateur yi. très très très très bien xam nga xam nga xam nga euh, loo ci mannequin bi mannequin bi. Mm-hmm. xam na mannequin yi nag lañ ci gën a yeb. Mm-hmm. boo waxee ñu ne non mannequin bu défilé ba mënatoo dem na da ngay jouer ji théâtre <laughs> non nañ leen mannequin itam dëgg la mën dañoo war a jouer ji théâtre mais dafa am ay affaires yu làmb ci biir. par exemple pour être vrai acteur wala actrice maanaam dafa am qualité boo war a yor maanaam da ko war a jàngi. métier dañ koy jàng métier dañ koy jàng. y des qualités par exemple y a des dafa bari ay mbir yu ci ne. léegi dama bëgg euh, père nga baal ma. dama bëgg gars yi partager direct bi. loolu mooy benn ñu partager ko ba pare ñu dem abonné. ci Songuanté TV. waaw abonné yi ci TikTok bi daf ci am solo lool. Uhuh. mais dama bëggoon parce que da nga ne léegi métier dañ koy jàng. waaw. ma bëggoon xam ndax per bu xar mhm. li mu doon tey mhm. fan la déparé ba yegsi tey tey fii mu yegsi mhm. ndax dafa jàng métier am wala dafa ñëw rek ñu parachuté ko très waaw lu am solo ngi noonu ndax kii seetaan jaar na mu xam kan mooy per am na ñuy seetaan ñoo xam ni leer na woon xëy na mës nañoo dégg ñu wax ca per lee wala ca per ndax man mës naa dem fenn ñu ne benn di nuyoonteeg benn waay mag la nag ndeysaan ñu nuyoo mu ne man mësuma xam ne yow doom baabu fay nga <laughs> ma ne ko yow papa baal ma ne du de. <laughs> ko déedéet man voilà man du doom ba du ma doomam. Mm-hmm. c'est que xëy na nuróo gi la mm-hmm. te moom mu nekkoon sama idole. Mm-hmm. vraiment ma bari ay théâtre am ma doon seetaan. mais duma ma doom bu baabu fay. man ngumba laa dëkk. dëkk bu ñu naan ngumba ngeewul dëkk Cheikh na Cheikh Sadbu waaw. <laughs> waaw ah, dinañ ci ñëw man man pour ñi ma xamul man dëkk buñ naan ngumba ngewul laa dëkk. boo déggee dëkk yi may lim dëkk yi may lim yépp Lamine maanaam man dëkk yooyu dama faa jaar dëkk yan dëkk yi may lim comme bu naan Tobbi Diop Njabi Fall Gàddaafe Kàllambaan Kàndala Tuube Guyot Bellaxoor Ndaat Njaloor Njeng Jaw Xasim Ndàggantu Tukulóor tëgg ndogi peex taal yang-yang taal baxle yaxiñe cuurun mbadaxun ba kër ma marsaan maanaam dëkk yi may lim yi ma dégg am na foo ci wax ñandu leen ah, ci la bokk yooyu ay dëkk la Lamine am na dëkk bu tudd sax Domada doma daa am na. kon am na yeneen am na am na ma bay dama bay. moom c'est que xam nga boo dee xam nga boo nekkee ndakaaru am na yoo xam ne mënoo koo xam mais man man mi dëkk ca àll ba tey boo demee ngumba fi ma dëkk boo jëmee gannaaw ngumba jëm ca côté mbawoor ga mbawoor waaw fi ñu naan mbawoor da fa fekk bukkul fekk fa jalgan fekk fa ceeb fekk fa cëriñ fekk fa caari mbawoor fekk fa bandañ pël bandañ wolof bat la dem ba puutu dëkk yooyu ñi may seetaan te ndi mbawar mbawar xam nan dëkk yi ma wax est-ce que nga wax bi boo demee biir waalo mhm. am na xën na jawaar am na ronk am na mbundoom dëkk yooyu danaa la xamal après la tax ma xam leen ok après per bu xar ngumba la dëkk dëkk bu ñu naan ngumba ngeewul maanaam nekkoon biir ngumba di fa yëngu ci nekk nekk menuisier menuisier ñaa jëkk liggéey bi ma bàyyi jàng. ah def nga menuisier. menuisier bois mais dégg nga ah, menuisier bois maa doon waaye suñu kër presque suñu kër am nay jamono maanaam bi ñu ko tabaxee ba yëkkati seng yi man maa ko dale. seng maa ko def rek sama loxo bi si dégg bi. bari na lu yu bari te li may wax waa ngumba xam nañ ko. Hmm. bi ma defee menuisier laa def ba mu yàgg. ma bàyyi menuisier. nekk marchand ambulant. Hmm. looloo gën a waral nag ma xam dëkk yi. Hmm. bi ma nekkee marchand ambulant. ci laa daan dem ci luuma yi daan lal ci marché ngumba bi ba mu yàgg may dem ci luuma yi bu bu bu ma dem Kébémer. da nga daan dama daan jaay. loo daan jaay. ay ay ay ay soutien gorge ay dama dama <laughs> baax ci kal ay sili bi xale. ay ak ay ay toccamikaay yi ay diw ay diw non jaayam kii rek loolu moom jaayam yooyu moom loolu moom <laughs> non non boobu comédie ma boobu dama daan lal rek jaay noonu boobu dama daan lal rek ay diw diwi xeesal yi ca jamono top ak ay maxime gel ay ay top ay ay ak ay nu mu ko néoprosone ay néoprosone gel yooyu ña bari ñu ko xamul <laughs> ci jamono yooyu yooyu la woon dama ko daan jaay ndeysaan daan dem ci luumay bu altine ma dem Kébémer talaata ma dem Potou àllarba ma dem sagata alxamis ma dem Njaañ àjjuma ma dem paal noonu laa ko daan teglee di jaay bu kiyee ma ñibbisiwaat ngumba ma yàgg ca dema dema dem ba yàgg ci tuuti après dem affaire bi doxul ma daat koy bàyyi ñëw sama benn xarit bu tudd Mor caam bu nekkoon gum bu yor atelier tailleur ndeysaan xool li yàlla def te xool maanaam man atelier tailleur ba dama fa àndem rek di attaaya ak a toog di waxtaan hmm. rek ak toog di ba far nekkub tailleur ah bon barke yorente bi di ñëw nii nii bu ma la téelee yëre jigéen ji yëre jigéen nag laa gën a xeeb maanaam daamine yëre jigéen rek hmm. moom suñu borom defal mayoon na ma ci moom yëre jigéen nii rek robb pour gudd wala kii daamine mooy daamine yéen fi daan daamine ci kaw ba ca suuf waaye daay daa maa daan daamine biire ba nga defe ak basang lañ ci lal <laughs> barki <laughs> dama daan daamine yére ba nga defe ne ak ba nga defe ne yow basang lañ jël rek kole ko ci ca laa ne ci tailleur bi ne ci tailleur bi ne ci tailleur bi mais teewul bi may ne ci tailleur beeg même bi may ne ci tailleur bi boobu RTS bu Louga hmm. teewul chaque mercredi dama daan jugee ngumba di dem di defi xaqataay show émission bu tudd xaqataay show RTS RTS bu Louga. mais ci FM bande FM. wala wala télévision RTS non rajo. rajo rajo. Hmm. ci rajo laa ko daan defee RTS bu Louga. Hmm. nekk foofu ñu yor fa benn group ñu nekk foofu après di wër ci école yi di jouer ay théâtre di wër ci ouverture fesco yeeg yooyu mooy ñëw ay Kébémer di dem ay sagata foofu programme bu fa am rek ñu woo ma ne boo xoolee loolooy indi euh, turu Père Bokhar bi. turu père bo gis nga galayaabe boo demee galayaabe bu Kébémer dafa am benn galayaabe ndeysaan sama xarit xaasuma ko yore ñu am benn jour programme am fa boobu kenn xaw ma ma ñëw fa far yam ci soirée sénégalaise bi bu ma ci yamee fekk fa ay sabar sabar yi sàjj affaire yi neex fekk booba ngumba turu per bu xar bii maanaam euh, ngumba la amoon suñu benn maam maam lañ ko mën a wax tuddee suñu benn paa boo xam ne góor gi Moussa seen la tudd góor gi Moussa Sène paaleen mbëbub la dëkk ci gannaaw ngumba dëkk bu ñu naan paaleen mbëbub waaye moom da doon xaritu shérif ya waa kër Cheikh Maxfu yi waa kër Cheikh Maxfu yi nekk waa kër Cheikh Mohamed Fadal yi ul du Cheikh Maxfu ul du Cheikh na Cheikh Sadbu yi nekk ngumba moom da doon seen xarit bu ñëwee rek ca mbaar ma lay toog leen waxtaanal ñuy reetaan rek mais paa bi dafa amoon taasu bu mu daan taasu taasu ba nag ma ma maîtriser taasu ba paa lu mu doon wax tax tambal gi tambal gi ci ndànd sa war warama saaja ban riddeetug ndax tey ko ci sa bopp say teñña ngalañ li doo ngu ngeen ni ma yow gaa yi ni ko yee per bu xar yow <laughs> loolu la daan taasu dama daan wax naan màggatum portugais na bu la toggalee ñam ne yomb ca waañ wa génn sa xët bët yay bas cawal ca ñeex sa la guux ngeen ni ma yow jigéen lay baax day fóotal goro di yakkal goro di waxtaana ko su goroom di fóotal njëkk di yakkal njëkk di waxtaana ko su njëkkeem di soq tey wal di takki fer tey <laughs> góor ga góor gi moo daan taasu loolu ma dem ba maîtriser taasu bi. ok bi ma demee Kébémer nag biir Galayaabe si soirée sénégalaise bi. Hmm. ma gis sabar yi sàjj sabar yi neex. ma xool xool fii xaw ma lu ma fi war a def. Hmm. ma ni naa dikk ca taasu ba. rek ma siife ca gannaaw. taxtabal gars yi na tekk xool ma. boobu tax kenn xamul booba kenn xaw ma. maa daan def lu xew rek ma dem siif. ok bu mag ci programme. waa ci programme la kay ci programme. <laughs> maanaam ah. suiveur de programme laa woon suiveur programme. non déet suiveur mband. de mband <laughs> booba sama si xoolal sama saak bu ndaw laa yor rek daan ci def caaya ak survêtement mm-hmm. damaa sol caaya ji sol survêtement bi. Mm-hmm. jël koppati bi rek daal di teg daal di siif ba ma siifee si gannaaw tatabal géwal yi xool ma xam ne kii saa ndax fu ma yëkkatee ñoom xam na ne waa jii di ñëw. noo kii am na dégg. Mm-hmm. rek ñu ràmbal. kii ko ko ma dem ka tambal ka tambal ki cin dad sawura ma sa aja bam di detu da te ko ci sa bopp say te ngalañ li dongo ngeen ni ma yow <laughs> te booba gars yi moo waxee loolu ci galayaabe bi sax ñoom xamuñu luñ may tontu xamuñu aw bi ok mais man maa ko awol sama bopp maa ne maa wax loolu ba pare eh, per bu xar yow gars yi dégg nañu géwal yi. dégg nañ daaj bi. bi ñu ko déggee après bi ma si dellu suwaatee salle bi yëpp di ko àndandoo. affaire bi jóg. loolu jàll ci guddi gi ma dem ñibbi ngumba ay 5 jours 6 jours am programme bu am CEDEPS bu Kébémer. CEDEPS mm. ba mm. programme bu mag. ñoom boole nañ ma ci publicité bi mais xamuñu sama tur xamuñu nu ma tudd. Mm. <laughs> boobu xamuñu ma. xamuñu sax ne ngumba laa jóge boobu temps amagoo turu artiste. déggu awuma ko. maanaam xamuñu nu ma tudd boobu suiveur de programme nga rek nga woon très bien léegi boobu après ci la DJ bu ñu naan DJ Alba mm. Badou Diallo mm. DJ Alba DJ bu mag sax mm. bu aay moom mooy def annonce bi ci euh, euh, euh, Dunia bu Kébémer bi moom mooy def annonce bi ci publicité bi uh-huh. daan ne xam na ni xam naa ni laajte na ba nga xam ni moor laa tudd moor ci biir annonce bi nag publicité bi mu ne moor per boo xar ok. <laughs> dégg nga fi ma waxee. dégg naa maanaam diije woowu. waaw mu ne moor per bu xar moo ne moor per bu xar déggeewul. fàttali nit ñi. ka doon taas waaw kay. le kooku la moom mooy ñëw ci affaire bi ñëw ci affaire bi ok. te kebe bi ma waxee loolu. ci laa njëkk a dégg per bu xar. après ma ñëw ci programme bi yëngal foofa neex affaire yi toj neex mujj Louga fu ñu waxee ñoom ne Mor Père Boukhar. Mor xam nga mujj per mujj Père Boukhar Père Boukhar benn jour benn guddi euh, ma toog suñu atelier tailleur bi atelier tailleur bi laay toog ba mu yàgg di ñaw jàpp Océan FM. Mm-hmm. bi ma jàppee Océan FM. Euh, déglu Ndoye Bane daan def émission chaque vendredi à partir de waaw monsieur le maire Ndoye Bane ñu ngi lay euh, le maire <laughs> maa ko xam kooku éy é eh, eh, kooku yàgg na noonu maa xam éy la xam nga xam ko xam xam xam xam hmm. xam xam xam hmm. ko xam baan baan ah. hmm. ñi ngi xamante maanaam bi mu ma woowee noonu ma jugee ngum ba ñëw ñu invité ma Océan FM. temps yooyu moom moo nekk Océan mi ngi Océan FM di def émission zéro heure ba vingt heures ba vingt ba deux heures du matin. bi mu ma invité ma ñëw. ni ñuy defee zéro euh, zéro heure ba vingt ba deux heures ba non ba <laughs> ba deux heures du matin laay wax. non <laughs> dama lay zéro heure ba deux heures ba deux heures du matin booba bu ñu daan pare émission léeg-léeg ndeysaan eh, booba dama am ay xarit yu nekkoon cité assemblée benn groupe bu dëkk Kébémer bu ñu naan groupe Ngéwal rythme dama daan juge Océan FM saveur d'Asie immeuble Ecobank bi ne ci eh, eh, kii bi foofu laa daan jugee di dox ba Wakaam cité assemblée <laughs> chaque jour chaque vendredi dem ba Ndoye Bane ñàkkoon moyen non wax dëgg waaw moyen amul woon billaay barke yonent bi des fois daan nga pare émission maanaam cent franc sax yooyor pour nga paas ko dem problème lay doon te man bëgguma doo kuy ñaan waaw waaw waaw man rus naa sax ne baan non yoruma paas pour paas dem billaay barke yonent bi am naa sax kersak wax ko mais teewul dana may wàcc rek jéngu naa ah garaaw naa jéngu rek dox dem non bu ma àggee kër ga gars yi ma fay fekk des fois dañuy defar dara mu am lu des ñu bàyyi ci waañ yeeg yooyu ma tàngal daal baan lijjantil ma ne ma léegi ndax damaa njëkk invité gars yi ne ko mu dem ba mu yàgg affaire bi ñi auditeurs yi doon dugg mujj naan ko non per bu xar boobu invité waat ko invité waatal per invité waatal per après mu invité waat ma bi ma dikkaatee mu ne ma non bii paa bu subaa moom man dinaa wax ak booba ndeysaan euh, ay waay damay fat Cheikh Bamba Ndiaye benn tam gaañu tam wàññi ko ndeysaan mm-hmm. ñu koy ñaanal suñu borom Cheikh Bamba Ndiaye moo nekkoon directeur Océan FM mu yóbbu ma ci Cheikh Bamba nu waxtaan Cheikh Bamba ñu defaral ma contrat ñu defaral ma contrat di ma fay chaque fin du mois boobu sax man xawma sax ay contrat ak ay affaires yooyu bi may fay chaque fin du ma daal di toog nekk ndakaaru chaque vendredi ma dem def émission chaque vendredi ma dem def mujj bantim boolewaat ma ak waa Seneweb. kon ban ku baax la ku baax la. ban ku baax Seneweb rajo gi Seneweb bii nga gis tey Seneweb gi bokk naa ci ñu njëkk a nekk ca rajo ba. rajo bi daan émettre par internet. man ak Ndoye Bane Seneweb googu chaque fin du mois ñu may fay ci Seneweb googu di ma fay Seneweb di ma fay Océan FM noonu laa ci nekkee nekk Océan nekk fa nekk fa nekk fa nekk fa dem ba mu yàgg après ñu dàq ma. ñu dàq xam da nga jékki-jékki rek dama jékki-jékki rek affaire xam nga rajo bi daa dem ba taa kiyatul woon. Mm-hmm. ñu dem ba mu yàgg jàpp benn jour fekk waa ji daf ma dañ ma ameloon benn mois. Mm-hmm. ma ñëw. war koo fay su fekk rajo bi tuxu bi rajo bi tuxoo ma dem fekk leen euh, bu fii ma dem fekk leen euh, biir euh, mooy fi RDV ne. waaw xamu nu mu tudd. waaw kii bi zone industrielle boobu. ma dem fekk leen fa fekk fa kañ ne mooy directeur ba waxtaan ak moom nanga nga mu jël enveloppe bi jox ma ne ma de vraiment daal moom nee na nga arrêté quoi. Eh, ma ne ko amul benn problème garaawul eh. man kay garaawul ci laa jug ma paas dem ñibbi ngumba directement. ko man moom loolu garaaw kenn waxul la hmm. motif tax ñu dara waxuñ dara waxuñ daal mu ne ma dàq nañ la ma ne ko ok ma daal jug dem ba ma demee daal di ñibbi ngumba defuñu li ma lay wax ni ay deux mille euh, deux mille huit deux mille sept la. Hmm. deux mille huit deux mille sept. Hmm. laa lay wax nii. deux mille neuf. ci laa njëkk a dem Kaolack duuta door. li ñu naan duuta door boobu festival du rire amagul. duuta door moo amoon. duuta door lañ ko tuddee woon. bi ma fa demee. ndeysaan te booba sax artistes ya ma fa fekk ay magi artistes ak ay kilifa ñu mag a mag artistes yu baari fii Sénégal mu fekk leen fa booba xamuñu ma booba xamuñu sax ba xam ne may théâtre mu déet mm-hmm. mais bi ma laajee dama leen man Louga laa jóge mm-hmm. ci région de Louga Ngumba laa jóge mm-hmm. léegi euh, euh, bàyyi ili leen comme moom Louga la jóge te waa Louga délégation Louga dikkul léegi moom nañ ko jël mu représenté région de Louga am ñoo xam dañoo bañ lank ne non man du ma joué Mm-hmm. ñu ne non non non non du jouer non non comme kii nangam nangam benn nit nangam non non non non bàyyi ile ak sën mii tey ndeysaan ñoo ca ne di wax di wax ba ñu bàyyi ma ma jouer bin may bàyyi ma jouer benn troupe bu nekk Kaolack laa jël lu mat ay cinq éléments mm-hmm. am lu ma improviser ak ñoom mm-hmm. maanaam teg ko jouer te bi ma ko tegee ba jouer ñëpp a jug taxaw barke yonent bi ca laa ca laa solee tëni biriga jéeba voilà man loolu la bëggoon lan moo tenue tenue bi lan moo jékki-jékki rek ñu détourné euh, mu nekk alkaati. waaw c'est xam nga xam nga xam nga artiste. artiste dafa da ngay da ngay da ngay da ngay. inspiration bi da ngay am inspiration da da ngay mën création. Hmm. gis nga gis nga personnage dañ la koy sax jàngal personnage da nga koy créer. Hmm. il créer un personnage. Hmm. xam nga li ma wax. xam nga personnage boobu man maa ko créer ak sama bopp. nan la maanaam ni ma inspiration bi ñëwee benn théâtre bu ñu doon joué ngumba la ci foyer des jeunes bi. Hmm. ñu teg par exemple programme bi ñuy teg maanaam dafa am koo xam ni prisonnier la dañ koo war a tëj. Hmm. mais buñ ko tëjee foog am ku koy garder. Hmm. ci répétition yi de man leen ma xalaat xalaat ma ni non léegi yéen man bàyyi leen man ma nekk gardien bi. ma nekk gardien prison bi. ndax des fois nga gis gardien yoo xam ne dañuy yambare yambar. man leen bàyyi leen man ndax booba. xam naa gis naa ci sama bopp ndax ki ma war a garder ponkal la ki ma war a garder ponkal la man leen bàyyi leen man ma nekk gardien bi léegi ñu ne waaw ok tenue boobu noonu maanaam chemise bi nga gis yére ba sama yére soxna la woon sama jabar yërëm yërëm yërëm la waaw yërëm la ci armoire balaa àgg fi te dama xool dama gisoon benn foto benn foto bu sëñ Babacar sëñ Babacar si ndeysaan ma gis bi mu taxawee nii am ñaari alkaati yu ko séq ca militaire yu njëkk yi. waaw te sol kiloot yi. waaw waaw yooyu nag laa xool. foofu la xool ma xam ne ma ni ma ni non lii tenue yi yii xam naa ni leer na ma ne ay tenue la woon. nañ gars ñu ngi ko sol yor ay fetal yàgg lool man nag ma ni naa jël tenue bi. ca laa defaree kilote bi kilote bi maa ko ñawal saa boobu suuf gi sax ñawuma kook ñaw dama koo urle liñ naan urle li wolof naan urle damaa dagg rek urle ko. tànk bay ji chemise bi noonu takkaay yi nag mani ne takkaay yi may takk yépp loo ci gis rek par exemple euh, euh, mbir la maanaam. aada ak cosaan bien dama ni. alkaati bi nekk ci àll. maanaam takkoo def. très bien. mais da ngaa takk ay ndomba. très bien aada ak cosaan et gis si ay rajo. et pourtant ndomba yi ma takk yépp gars yi des fois dañ may laaj per ndomba yi man leen pourtant rek genn wàll ndomba yépp yëpp dama koo for amu ci benn domba boo xam ne maa ko. nga ne danga la. billaay xaw ma ko ndombay xaw ma ndomba lan la te ba nii may waxee mi ngi sama ngi sama valise. mat ndombay mat nan. Ah, yow dama for ndombay mat mais am na ci goo xam ni moom dama ko ber léegi da boobu moo ko takkee dama mel na gay de <laughs> nee naa moom. mais yow <laughs> <laughs> am na sa doom boo xam dama koy takk di ñàkk tooy xepp ma ne man xam naa gii daa na ne moo may xabtal. billaay wallaay non lu garaaw eh? non moom laa taxal extincteur bi gis nga extincteur bi may takk dafa am jamono ndeysaan jigéen ñi xewaloon ku ku sa jëkkër takk ñaareel nga dégg ñu naan taal nañ diw fii taal nañ diw fii taal nañ diw ma ne noonu il est góor ñi di yor extincteur seen kër pour fay seen bopp pour fay seen bopp rek bilaay wallaay ma ne il est temps nit ñi waaw di di waaw waaw non bilaay wallaay ma ne il est temps nit ñi di yor extincteur ndax jamono wóoratul parce am na ci jamono dañ daan taal góor fat fat takk nga ñaareel rek moo tax ma ne góor góor war na ko yor ci biir këram yor ko ca néeg ba yor ko ca saal ba bu doxee ba ñëw kër gi di xeeñ essence wala di xeeñ pétrole mu génn ko bokk téye en attendant ba xam luy xew kañ ñëw ndakaaru toog fi <laughs> bi ma ñëwee toog euh, presque mën naa ni euh, bi ma nekkee Futurs Médias la laa gën a basé wu nag toog te loolu euh, c'était mën naa ne c'était grâce à maître Diop. maître Diop benn maître Diop. non mais maître Diop bi nekkoon bi nekkoon directeur Futurs Médias boobu yàgg na li ma wax leen yéen. moom mi ngi woon waaw yow jamonoy tafaa Diop. waaw Tafa nag fa la fekk man. <laughs> waa boobu euh, grâce à maître Diop moom fi booba lañ dem festival du rire bu Kaolack bu 2010 bi. Mm. xam nga rek def fa mooy bi ma naan may ma tuuti. ci lañ joué loolu après affaire bi def bëm waaw après ba bañ def ma duuta door bañ def ma <coughs> meilleure révélation 2010 2011 per bu xar lañ ko defoon yóbbu ma Sorano Sorano feet bu mag bu fa amoon. 2000 hmm. meilleur def ma meilleure révélation oui meilleure révélation mille 2011 jox ma fa trophée ndeysaan sargal ma fa daal. Hmm. ndaa naa ni Sénégal yëpp ñi yëngu ci wàllu théâtre hmm. ñëpp teew nu sargal ma fa. sargal ma wax dëgg yàlla te loolu euh, maa ngi jéggalu duma ko mës a fàtte ndax euh, bis bu rëy la ci man. dafa am loo xam ni pour wax la ni suivre naa la. Mhm. da nga géex léegi. Mhm. ma seetaan euh, ci biir euh, kii bàyyi mhm. nga ne ma seetaan nga ne man daal saa yu ma saa yu ma lekkee ceebu jën fonde laay géex. <laughs> pour nag loolu xool ndeysaan suñu benn maire bu nekkoon Gumbaako Roxo benn maire benn maire ndeysaan moo daan def noonu mais dafa xawoon a euh, kii dafa xawoon a wéré moo daan da daan saaga rek mooy maire yu tàng yooyu moom da daan saaga rek ba waxee mu ne ah, eh, ah, ah nit ñu nan nan nan laa toggal leen ma supp ngeen dem toggal ma lu bon nan ah nan supp te yéen ngeen supp nga ma ko defaral ma lekk supp bay bëgg a dee ba noppi di jeexub laax loolu fu ma ana lekk supp ak jeex laax ngeen di fen li ngeen ma jox am laax la <laughs> maire yu yooyu <laughs> loolu nag ca laa laa ca moom laa jëlee woon loolu nag <laughs> mu ñëw nag dakaar complètement bi ñu ma defalee eh, ndeysaan contrat Futur Média ci laa toog dakaar nekk Dakar xam nga nekk Futur Média liggéey vraiment muy rafet lool waaw liggéey bi mu rafet lool wax dafa rafet ndax xam na ni ñoom saa su ne dama koy wax gis nga eh, wax dëgg yàlla bëgg woon sax di wax di ci kii ndax xam nga tey pour bégal gars yi la woon mais mais ñoom vraiment di leen euh, sant bu baax a baax mm. ndax nag euh, ba nii may waxanteeg yow saa su ne rek mm. moo li warlu suñ diggante ak ñoom ñu ngi koy def weer bu dee nu viré la sa salaire du manqué fukki dërëm bu amee lu ca war a topp tos toftalu sax maanaam loola dañ ko cay yokk te danga cay teel a jot man loolu damay faral sax di ko ndamoo bu ñu waxee ma ne man Futurs Médias laa gis télévision boo xam ne maanaam balaa la trente nga fayeku waaw Futurs Médias daal laa ko gis wax dëgg yàlla moo tax vraiment daal di ñaanal la président Youssou Ndour suñu boroom defal ko jàmm ci barke yonent bi ña fa nekk ñëpp muy Birane Ndour muy Njagaak muy Buubaak ñëpp nu ñaanal leen ndax nag euh, euh, euh, kër fa nga fa ngay teddee tubaarkàlla boo sañoon mooy mën mu foog ngay ñaan muy jóg kon Futurs Médias daal ñi ngi leen di ñaanal ku ci mel na madame Ba madame Ba kooku kooku kooku kooku Lamine kooku nee naa Euh, Futurs Médias yor nañ ko sax waaye xamuñu ko madame Ba ku baaxee ne moom barke yonent yàlla Muhammad musuma koo gis ci defar ay diggante ak wax lu baax té kooku dafa baax madame Ba mais yow léegi père waaw <coughs> dama bëggoon waaw lii ñu def nii ñu tuddee ko songante riir <laughs> waaw songante riir non xoolal man dinaa promettre gars yi que waaw man ci ci ci songante TV gii man dinaa leen ciy may. waaw par exemple xëy na nag man léeg-léeg jot gi mooy problème. waaw ndax damay ne di am ay liggéey yu may def te damay def ay tournée ay yenn affaire mm. mais dinaa leen promettre. Mm. par exemple donte sax may jàpp benn jour ñëw fii. Mm. man maa lay garanti danaa la may fukki lépp yoo xam ne. fukki lépp yoo xam ne grand mbubb laay sol man dong toog fii. non non déglu ma rek déglu ma rek waaw non déglu ma rek déglu ma rek. grand mbubb laay sol bu ne mu jël koppati bi teg. toog fii nu taal caméra. ma may la fukki léeb yoo xam ne après da koy dagg benn benn maanaam chaque ah, deux jours wala trois jours wala chaque semaine semaine nga sànni leen benn te léeb yi ma leen di wax amul neexal kenn ree force la ree ba daw. mais tey. non tey moom foog ma bégal leen ndax xam nga damaa kontaan li tax ma kontaan mooy xam naa ni namoon nan ma. te gis naa ni kër yaa ngi dugg. te te te kër yaa ngi dugg. waa laajaatal ay kër. laajaatal ay kër bu ko defee ma ma may leen ben kii. abonnement mhm. euh, ci Songuanté TV. ak euh, TikTok bi. laajal ay kër laajal ay kër. gars yi may leen per bu xar ay. ay ma may leen benn lépp en attendant. xool kër yi ay kër ma may leen benn en attendant. may leen may leen per bu xar ma ma may leen borom dix dix mille ñeex yi. waaw borom neuf mille ñeex yi. waaw waaw ak mille francs yàpp waaw. xoolal yi <laughs> na ñëw na ñëw. yoo kër yi gën a ñëw non yi na ñëw yu ëpp yi na ñëw. partagé leen ko. waaw yu ëpp yi yu ëpp yi na ñëw bu ko defee ma may leen ko. kër yi na ñëw kër ah, na ñëw na ñëw na ñëw. kër yi na ñëw voilà na ñëw na ñëw na ñëw waaw na ñëw. na kër yi na ñëw na ñëw na kër yi bu ko defee ma may leen ko leegi waaw waaw ma nga jëkk 17000 nangam nangam nangam nangam. waaw waaw waxtaan rek te waxtaan rek la. waxtaan la kam na gis nga Lamine. nun lii lañu soxla. dëgg la euh, gis nga Sénégal nee na ak bu doo bu fekkonte ne par exemple Sénégal yëpp dajoo dajale ko xoolal kenn ku ne bu joxee moroomam loxo ne ko ñu baalonte ak eh, jàngoro yeeg yëpp de dañ ko tuddee songoo riir songoo riir <laughs> eh, eh, mi ngi ni <laughs> dégg <laughs> nee nañ ko tuddee songoo riir songoo waaw waaw kër yi ak partagé leen ko da ngay te moom moom songoo boobu mu sa wax sax moom dama ko ciy may dara ñëwal pël bi pël bi. waaw pël bi daa dem France. dégg na France boxe fa gën a dox boxe. Hmm. boxe tip tiwe hmm. mun dégg na ni moo gën a dox ca France da nga koy def même pas un mois nga nekk millionnaire. Hmm. pël bi na day boxe. nu boole kook benn tubaab mu nekk entraîneur am fekk amoon na fa benn champion boo xam ne moom def na fa un an amul adversaire ndax soxor gu mu soxor. te xamu ca dara te pël ba xamu ca dara. comme pël bi agsi na bëgg na bëreet rek àgg ci kaw entraîneur bi ne ko kooku loon koy booleel ñu signé contrat bi ñu yóbbu leen ci ring ba na war a jàkkaarloo. ñu war <laughs> pël ba. pël ba waa ji nga xamante ne nii ñëpp ko doon daw ca France ak maanaam champion France ba daal. bi ak champion France bi. biñ taxawee ci kaw ring bi xat gi lay na dañ ne fër saawaay ñam ko wip wip wip wip wip wip ku ñam français bi bi ñam wip wip wip wip pël na ne ci suuf. entraîneur bi ñëw fëgg na ko non vas-y vas-y vas-y vas-y vas-y bi jógaat bi agsi waat sa waay ko ci ngaam tuk tuk tuk tuk tuk tuk mu daanuwaat entraîneur bi ko non vas-y vas-y bi jógaat sa jàppaat ko poñ a xëcc dóor mbëkk tépp dóor pép pép pép padd kaj ji bi entraîneur bi ñëwaat ne ko non vas bi ne bëri na ko mi vasaani mi Bazane <laughs> ma am na benn pël am na benn pël xoola am na benn pël pël bi moom pël bi daa ñëw taxaw ci tali bi di wut oto bi mu taxawee ci tali bi di wut oto maanaam moom taxaw na fa presque maanaam ay euh, huit heures ci suba. Eh. ba seize heures mënta am oto. Eh. huit heures ci suba ba seize heures. maanaam mënta am oto. mu ne nag léegi day jéngu maanaam fi mu taxaw oto bu mu séen muy ñëw rek day taxaw ci tali bi par mm. force oto boobu da yóbbaale. Mm. parce que dafa yàgg stop dafa yàgg huit heures ba seize heures te naaj wa tàng na fekk ko ba ngoon gi di ñëw mu ne oto bu mu séen muy ñëw par force day taxaw ci tali bi oto bi yóbbaale ko. mu seen benn oto di ñëw pël bi taxaw ci diggu tali bi ndekk oto gendarmerie la colonel bi ak capitaine bi ñoom ñaar ñi ngi toog ci kanam sol seen ay affaire jël seen arme technique yi xam nga rek gars bi taxaw ci diggu oto bi ñëw rek freiné xiic pël bi waaxu jaagar jaagar ci bunt bi de moom moo ubbil boppam jàkk yam ñoom ñe leen ne yéen kay fees ngeen <laughs>

ko waa ñu tuddee songo riir waaw ah, waaw songo riir la léegi <laughs> kon père bu xar nee na la bëgg bëgg ah, na dina fii maa la wax loolu vingt lépp yoo xam maa la koy may gratuitement nga daggat ko di ko jox gaay naqari reetaan par force ree la pël bi daa gane ji benn kër waaw bi mu gane ji benn kër hmm. ànd ak soxnaam mais bi muy agsi ci buntu kër gi dañu soxna si mm, Aysat mën nanga fekk bu ñu woowee lekk nanga ni suur naa de fi nu mën mën nañ dugg ñu ñuy seetlu defan dañoo bugg lekk wala yooyu fekk bu ñu woowee rek suur naa suur naa mm. Aysat ne ko waaw kay nii caay mm. nu dugg biñ duggee maanaam comme pël bi agsi nañ ay côté maanaam dix-neuf fekk ña ngay togg sax reer bi ñuy togg reer noonu ba defar pompiteer bi nu saaf ak pompiteer bi nu baxal ak yàpp yeeg yëpp waaw ñoom gis nañ ko mais ci buntu bi la ko la jabar yi waaw waaw bin duggee toog bin ñu ne Paul bi ah waaw pour la carrière mu ne ñàkk sumu day baax na suur naa billaay dum laa moom ay billaay wallaay laajal Maria moom ci biti bi ñuy ñëw rek léegi lañ defaru ci biti xam ñun Paul dañu wax <laughs> dañ bëgg cere ak meew bi ñu ñëw ci biitu loolu defaru ba nga xam ne biin tubarkal mënuñ ci dara rek billaay ah, moom kay jërëjëf jërëjëf pël eh, kay eh, jërëjëf ak mu ñàkk suum ndey jërëjëf billaay jërëjëf ah doom ko laal wala kay xanaa kay nga bàyyi kay ma laal ci pombiteer bi rek laal ma laal ci pombiteer bi fekk pombiteer bi ñu soog a baxal seppi ko léegi xam nga li ci kaw du tàng dana dana cas pombiteer bi na pelem sax pombiteer bi di xotti mu jug juuti faa eh, ah, mi naat jeewanam soo pombiteer xaari <laughs> ndaw si ne ko nijaay xaaraani ka mu ne kon dami maay <laughs> ƴeewnam so soo <laughs> de terre haari mu ne ko nijaay haarani de mu ne ko kon demi ne ko pomme de terre ɓawi hottidemo de pël bi takk karawaat nag pël xala non maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw pël karawaat la takk xola sañse ba karawaatu xoj karawaat gi nii ba karawaat gi téye ndeke moom léegi boo buggee moom. waaw may ma tuuti boo buggee ah. naan da ngay bi mooy aquaterra. mooy bu waaw kii bii mooy bu baax bi waaw. kii ndox mu gën ci ndox yi la waaw mooy ndox mooy ndox mu dafa am ndox yoo xam ne tooyuñu déggoo ma de daa am ndox yu tooy ndox yu tooyul. ok lan mooy différence bi. différence bi ca boo ko naanee nga ko yëg. comme man ni da nga naan ndox mel na luy ñaq léeg-léeg danga naan ndox fekk nga ñaqoon ñaq wuy dugg booba yu baax. mooy bii mooy Aquatabs mooy bii nii. nga ne pël ba. pël bi <laughs> daa takk karawaat. Hmm. mais dañ ne ko ah karawaat gi nag boo ko takkee fexeel ba bul yàq sañse bi ay hmm. lekk yi sax bul lekk bul def dara yow tooga rek <coughs> takk karawaat gi ñëw ci kër gi bi mu dikkee ci kër gi yaa si vingt six mille gemmes yaa ilaha illa dana dem bi ñu duggsee ci kër gi pël bi daa agsi rek yem ci ñuy ndékki eh pour ndékki eh sañse ga pour la eh, kaay ndékki mun jërëjëf doomu karawaatu kastawaat teg karawaat du mu ndékki nu dem mu toog garaawul ci bëccëg bi ñu defaraat ay laax avant ñu añ teg laax yi indil ko pël e laax ak nit naa ko dem mu jar ngeen jaf dum laal damaa karawaatu ah, hmm. <laughs> nu demaat añ jot ñu ne ko e pël kaay añ mu ne eh, jërëjëf dum ko billaay ba suur naa duma añ karawaatu hmm. ñu ne ko waa baax na jërëjëf dem ba ngoon gi ba ci ngoon gi ñu taw teg ay mbaxal mbaxal yi yàpp yi karawaat bi waaw du lekk waaw nu dem bàyyi ngoon gi nu teg ay mbaxal indil ko mbaxal pël mbaxal a ngi nit nag mu jërëjëf duum ko lekk doomaa karawaatu nu demaat ba timis jot timis reer jot nu ne ko pula kon ka xaar ka kon da ñëw reer mu ne jërëjëf billaay dama karawaatu nu tëdd dem ba suba jotaat ndékki pula kaay ndékki daa dee ka do kaay ne mu jërëjëf bu lekk dama karawaatu déglu rek nu demaat ba ci ba bëccëg bi ñu indiwaat ay leneen i laax pour la doo laalaat ci laa mu jërëjëf dama karawaatu ndeke butit yaa wannante ma a xiif bay pëkkati avant midi di jot moo tekki karam karawaat gi tekki ko teg ni le oh. xola benn booy di romb ci bunt bi daa ŋàbb palaat bi di romb naan oh, eh, oh non pël bi sax dafa karawaat jarul ma ko yóbbul ma ne ko déedéet tekki naa ko ñëwal ñëwal <laughs> ne ko déedéet tekki naa ko ñëwal bu butit yaa ngi wannante butit yaa ngay wan nan takk ak ak bañ a lekk mais ah mais mais xëy na rek xam nga rek nit ak loo xamul nit ak loo xam xam nga am na benn pël bu dem ci benn kër daa agsi ci kër gi maanaam maanaam daa tardé euh, bi muy agsi ci kër gi daa fekk ñu añ ba pare te fekk daa xiifa xiif bay bëgg a dee bi mu agsee rek tardé añ bi mu agsee ndeysaan jabari paa bi paa bi ñu toog na ba mu yàgg na ko ay waay pour la ay waay doxee nga naaj la ay la xam naa ne war ngaa xiif de waaye de xam na ay waay da fekk nu añ ba pare si te te te te ay waay lii de doy na waar benn xale bu ndaw naan ah jox leen ko añu paa bi ah ndaw sa continué naan ko ah doy na waar de doy na waar de ñu xool ñu fàtte loolu. ñu fàtte loolu nu toog ne ca waxtaan ba presque ay 15 heures 16 heures ba ay 17 heures ay 18 heures xool pël bi fi mu toog mi ngi wañaaru di wañaaru xiif di ko bëgg rey moom pël bi jékki-jékki. fàtte ne euh, maire bee euh, booy bi waxoon jox leen ko añu paa bi. Mm. fàtte nañ loolu pël bi jékki-jékki rek reetaan <laughs> oui ay booy oui saabu ndey <laughs> pour nit ñi bàyyi ko xel. ñu ne ko waa pële la bu booy bi naan jox ko añu paa bi. <laughs> li wax li moo ñëw. yaa ngi ci trente et un mille j'aime. ah ouais yaa ngi ci trois cent trente deux personnes. ñu lay suivre en direct. waaw ñii dañ leen a war di bégal. waaw dañ lay waaw moo tax. li li xoolal ñoom ñëpp ñu ngi xam nga. li man sax man sax day baax ci man. ndax man dèjà lii gëj naa ko def. waaw dëgg man lii dama koy nam dëgg la man damay namm. di jàkkaarloog ay nit ñoo xam ni. par exemple tey damay bëgg di leen bégal. xam nga loolu li ma la wax maanaam euh, ñun danoo war di euh, di bégalante ñun lii lañu am ñun mënuñoo jaay benn tiitar sénégalais yi mënuñu leen a jaay benn am-am. mënuñu leen a jaay benn koom wala jaay leen nii la ñu mel wala dara. c'est parce que ñun li ñu doon. ñoom ñoo ñu ko def. ñun li ñu doon. ñoom ñoo ñu ko def kon day jaadu léeg-léeg nu bàyyi suñu yitte. nekk ci seen yitte. maanaam ñun. ñu bàyyi suñu yitte ñoom nekk ci seen yitte xam nga heure bi mënoon naa dem toog sama kër ne ci leneen nekk ci yeneen affaire nangam nangam wala dara mais dama ni non naa ñëw ànd ak yow mhm. ndax yow xam naa sa yéene ci Sénégal yi mm. xam naa sa bëgg-bëgg ci Sénégal yi naa ñëw ànd kook yow nu bégal leen ba nu bég ndax nag day jaadu léeg-léeg am na koo xam ne boo demee par exemple mi ngi tëdd ci lalu hôpital di seetaan mm-hmm. am na koo xam ne mi ngi ci lalu hôpital tëdd yor téléphone di seetaan en direct am na koo xam ne mi ngi ci boo demee ay nit a ngi ci biir prison am na ñoo xam ne ñu ngi ci seen biir kër mais bi ñuy wàcc tey maanaam wàccewuñu xol bu neex am na ñoo xam ne ñu ngi ci ay problème problème mu sëy problème mu xaalis fii mm-hmm. problème ménage yi maanaam problème yi bari na. xam nga li ma la wax ñooñu tey bu ñu nekkee ci seen kër yor seen téléphone di nu seetaan. Hmm. presque boo xool ça fait plaisir demal tey Casamance. Hmm. armée bi nekk foofu tey. Hmm. actuellement boo demee am na fa ay militaire yoo xam ne ñi ngi yor seen téléphone di nu seetaan. ndax man dama fay dem ndeysaan jaar fa daja fa ak bi ay ay ay soldat ak sama oto ndeysaan sama yaram dafa daw ma ma ma ma dem ba leen di romb ma freiné boobu man ak Moussa Diallo ñoo ànd ndeysaan ma freiné bi ma ne ma daal di arrière non boobu man ak Xaadim Mbaay man ak Xaadim Mbaay la ak Maguette Seck ndeysaan ak Adja Yacine mooy sama fecckat yi may àndal ñu dem bi bi ma agsee ma ni gars yi non ñii moom ëpp nañoo romb ma daal di freiné wàcc dem ndeysaan xool ñu kontaan ñoo nuyoon parce que dañu stressé léegi wallaay photo woog ñoom noonu ci àll bi taxaw jël sama temps waxtaan ak ñoom après yéegaat sama oto ndànk taal dem ndax Lamine dafa am ñoo xam ne ci réew mi foog ñu leen di bàyyi xel armée nationale bii. nañ leen ñuy nelaw ñoom ñoo nekk ñoo ñuy ñooy veillé ci ñun. sapeur pompier. ñooy veillé mhm. danoo war di leen bàyyi xel. Mhm. police nationale gii. Mhm. danoo war di leen respecté. police dañ leen a war a respecté jox leen seen cër. loolu mooy li war gendarmerie nationale. noonu sage-femme yi nekk ci hôpital yi ak médecins yeeg ñooñu tamit. ñu leen di bàyyi xel di leen ñaanal. Lamine réew mi mënoon lu dul ñaanal. fi mu ne yow mënuma laa jox loo amul. déedéet mënuma laa jox loo amul. li ne ci man moo ne ci yow. waaw kay gis nga kon liñ mën mooy ñaanalante. jàppalante dimbalante te yéenante jàmm te yàlla tax. Mm-hmm. loolu laay wax ne man bu buñ ko defee ci réew mi. Mm-hmm. Sénégal mën naa avancer ñëpp mën na noo am jàmm. Mm-hmm. bu ñuy ñaanalante te yéenante jàmm. réew mi nee naa leen nañuy yéenante jàmm. c'est important loolu mooy li am solo. mais. xiiroo fee ŋaayoo fee kii jaxase fii kii jaxase fee kii jaxase jaru ko jaru ko nit ki gis nga lii sa wërsëg mm-hmm. bala ngay bala ngay dugg ci kàmb la da koy jot mm-hmm. te ñun ñëpp maanaam nin fi dikkee mm-hmm. noonu la ñuy demee ëllëg noonu la demee xam nga benn waay ndeysaan dama déglu góor gi Maxtaar Seck Mboro fàtte naa sax histoire ba maanaam dañuy jëlal exemple tey ceeb ba nu bàyyee Thaïlande wala ceeb ba nu bayee Chine. Mm-hmm. gis nga sax gis nga nam sore mm-hmm. te maanaam luñ jël la dugal ci biir suuf. Mm-hmm. mu jeeb bi jóg. indi meññeef. meññeef boobu ñu góob ko. defar ko yàpp ko ci conteneur. conteneur yooyu ñu yàpp leen ci ay bato. bato yooyu daw lu mat fukki fan ak juróom jàpp ñaar fukki fan. ba dugg ci réew mu naan Sénégal. bi duggee senegaal dem ca port ba Coste fa. bi mu demee port ba costé fa grossiste yu mag yi ñëw wàcce ko par ay tonnes ñii 30 tonnes ñii 40 tonnes ñii cinquante tonnes. ki yóbbu risaatool yóbbu risaatool kay yóbbu ndar yóbbu ndar kay yóbbu Louga yóbbu Louga kay yóbbu Touba yóbbu Touba. ñooña bu nu jëlee yóbbu ca seeni magasin yu mag ya. détaillants yi borom yi ñëw ñii jël par benn tonne kii ñaari tonne kii benn ton kii ñaari ton def ci seen boutique. ñi gën a néewle ñëw jël ñaari saako kee ñetti saako kee benn saako kee ñaari saako. Mhm. buñ ko jëlee te noonu après borom kër yi ñëw jël ko kii kilo kii liibar kee kilo kii liibar ñu yóbbu ko ci biir kër yi mhm. taal sóor ko ci cin mhm. buñ ko sóoree ci cin togg ko ba mu ñor waa kër gi xewaloo ko la ca war a dem ca yaram wa dem ca la ca war a génn dem ca duus ba dem ca duus ba loolee fan la mujjuwaat ci suuf te fu jugee woon ci suuf doo jàngat bu extraordinaire. maanaam pour bàyyi xel rek que maanaam loo fi yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg. ak foo mënti jaar ak lu mu sore sore sori. lu mu extraordinaire extraordinaire. suuf rek lay mujj. kër yu rafet yeeg ci suuf. Lamine damay faral di wax naan gis nga xaalis xaalis neex na lool baax na lool waaye am ca looy fajee soxla doy na sëkk ndax nag gis nga di nga am sa xalal ju baree bari nekk milliardaire bari na milliardaire yoo xam ne barke yonent yàlla Muhammad bu nu tëddee du nelaw. dëgg la. bari na milliardaire yoo xam ne bu nu tëddee du nu nelaw. am na ci yoo xam ne tey bu nu bëggee tuur ndox nu baal ma ci kàddu gi bu nu bëggee tuur ndox maanaam. foog nu dem hôpital. te bu doon xaalis a koy faj rek maanaam lan yor ci alal kenn xamul nu mu toll. te boo leen woowoon léegi ne leen joxe leen seen alal bi ngeen am yëpp te wér ñu joxe. barke yonent bi ñu joxe ko. ki nga xam ni amul dara. Mhm. taqul dara. Mhm. tey boo ko ne woon kaay ma jox la ay milliards nga jël sama feebar bi du ko jël. du ko jël du ko jël Lamine immeuble bi li muy mag mag nekk huitième étage neuvième étage dangay dem danga ko fi bàyyi booy dem la lay topp du mat ñaari junni te yaa ngi fi bàyyi milliards booy dem li lay topp maanaam du mat ñaari junni xam nga benn waaye daf ma nettali ne ma ne ma maam Cheikh Mbaye doomi Jiili Mbaye mhm. dama ko nettali de mu ne ma. bi bi bi Djily mbay génne àdduna ma ne ko waaw mu ne ma maam Cheikh daa jaaxal nit ñi mm-hmm. ma ne ko tax nga wax ko mu ne ma ndax daa gis ñëpp di jooy gisul maam Cheikh mu jooy gisu ko mu jooy neen nu dem di dem di dem ba mu yàgg bi nu waree defar woy juróom mm-hmm. bi bay Djily ki ko war a defari ñëw nee nañ maam seex Cheikh làmb poosam yëkkati ñaari junni jox bi mu yëkkatee ñaari junni jox ko waa ji dem yóbbu ñëw delloosil ko weccet bi mu ko delloosil weccet teg ko ci loxoom rek maam Cheikh bay bopp bi ci suuf ma ne ko lu tax mu jooy mu ne ma ah daa xam ni kër kee ñuy defar nee te lim yóbbu matul sax ñaari junni ak lam fi bàyyi pour wan la ni maanaam alali àdduna dara mais père yaa ngi ci trois cent trente personnes yu lay suivre en direct yaa ngi ci trente huit mille trois cent j'aime. danaa trente huit mille. danaa ak garanti yaa ngi ci trente huit mille. nan nan laal kër yi bu ko defee ma mayewaat benn lépp. léegi li ma bëgg mooy ñu laal kër yi nañu laal kër yi ba pare abonné. abonné waaw surtout. ndax Songuanté TV nañ abonné nañ dem ca YouTube bi ñu ad abonné. ndax nii nii tey tey man ni ma fi ñëwee nii. waaw ni ma fi dikkee nii nii tey tey. ñaata maa nga bëgg ñu laal ñu. man man bëgg naa tey tey bëgg naa tey tey man bu subaa Lamine Samba woo ma ne ma per TikTok bi yokku nu deux cent abonnement wala trois cent. Hmm. YouTube bi yokku na cinq cent abonnement. yow loolu nga bëgg. loolu man maa ko ñaan yéen ñii seetaan man maa leen ko ñaan abonné wul leen ndax nag chaîne bi seen chaîne la. ñoo ko eh, li nga doon wax ñi nga wax li ngay wax dégg nañ ko. waaw yaa ngi ci quarante mille. deux cent j'aime. te da koy dana àgg quarante mille. dana àgg quarante mille ngi ci trois cent quarante huit personnes. qui te suivent en direct. nan j'aime bu baax a baax na dem ba cinquante mille. na dem ba cinquante mille j'aime. léegi laaj yow. kër euh, ay kër laay laaj. am teel ay kër bu ko defee waaw. ca xoolal say kër. laay laaj ma xool kër yi. léegi na kër yi ñëw. waaw euh, kër yi ak euh, bu kër yi ñëwee ma may leen maçon ba toogoon lu mat ñeenti at sanguwul ak fa mujje <laughs> <coughs> kër yi na ñëw dama bëgg kër yi tegloo ma may leen maçon maçon bi toogoon lu mat quatre ans laalul ndox. kër yaa ngi ñëw yow téel. per toogal per toogal. tu as dix minutes avec léegi na kër yi ñëw <laughs> na kër yi ñëw na kër yi ñëw ma may leen maçon bi toogoon lu mat ñeenti ñeenti at sanguwul ñeenti at la maçon bi toog sanguwul waaw nettali leen fa histoire ba jóge ak fa histoire ba mujjee. <laughs> te amul ne reetaan par force la képp koo xam ni yaa ngi seetaan man bir na ma ni bu ma koy indee da nga ree ba tëb waaw te bëgg naa bu ma ko mayee ba pare ku ci reetaan rek bindal defal riir riir <laughs> ma gis xam ne riir am na <laughs> aca na na kër yi jóg na kër yi jóg waaw këy kër yi na ànd ak ay reetaan dégg nga aca waaw waaw waaw waaw këy noonu laa ko bëggee waaw maa ngi gis da ay Bey Jóob ay Elage ay Booy Jóob ak Fàllu ay nan ay Peuzzi Peuzzi boys waaw masamba riir na masamba doolil beneen riir ak ay kër waaw riir puzzle waaw riir aca duggal aca waaw ma bemba ma aca riir aca riir riir waaw riir ak ay kër na gaaw waaw waaw <laughs> ak abonnement naa gis ay abonnement tamit naa gis abonnement bu ko defee léegi ma dikkaat ma dikkal leen ci maçon bi toogoon lu mat ñeenti at sanguwul waaw ku ma solal casquette TikTok fii kii kana ma way si <laughs> kooku kana ma dikkal leen ci maçon bi maçon bi maçon bi Lamine maçon bi eh, maçon bi daa toog quatre ans ñeenti at sanguwul quatre ans maçon bi bu déparé maanaam tey bu jugee parcelle jëm Kër Massar buy agsi golf waa Kër Masaar dañuy daj seen bakkan ndax xet gu bon xasaw xasaw xunn bu yëkkatee loo xam day mel na bomb day mel na jaaykatu netatu ndax poqataan yu xasaw <laughs> benn bis nag mu génn ndakaaru woyaase dem dëkkub àll ci saalum ne day gane ji bi mu àggee nu ne ko ah dégg nañ ne kat yow bi ngay dugg ci dëkk bi xet gi dañuy gunn te foog nga sangu ji mu ne loolu nangu naa ko ndax ba ma gëjee sangoog léegi yàgg na ndax ba ñoo na yàqum ndox mu ne waaye lenn ngeen may may di ngeen di bàyyi ma dem àll ba wuti mat comme daa sedd bu ma demee àll ba wuti mat bu ma ñëwee bu ma tàngaleem ndox ba mu tàng ma sangu nu ne ko demal wuti matt mu dem bi mu demee àll ba di wuti matt daa dugg ci biir àll bi yam ci gaynde gu réer goo xam ne def na fa ñetti weer lekkul dara gaynde gu def ñetti weer lékkul dara dara dara dara dara gaynde gi dañuy jàkk xool sa waay waaw songoo xaqataay show léegi noonu la émission bi tudd songoo xaqataay show ak Lamine Samba ak Père Boukhar ak Père Boukhar donc waaw ak Père chaque samedi eh, eh, déet jàppaguma dat damaa juum eh, damaa juum jàppaguma dat <laughs> gis nga waa ji bi mu duggee ba jàkkaarloog gaynde gi gaynde gu xiif gi gaynde gi dañuy jàkk xool sa waay dóor yuuxu ko ah saa waay na tekk taxaw gaynde gi dóoraat ko ko ah saa waay na tekk taxaw gaynde gi dóoraat ko ko ah saa na ni bëri na gaynde gi seex tànk bi fii fii fii xoolal fii la gaynde gi seex fii nii fii la gaynde gi ni ciix seex yëngal yëngal yëngal yëngal yëngal yëngal ba mu yàgg moom gaynde gi daal di yàbbi daw jaar nii sa daw jaar nii gaynde gi daw di daw di daw di daw di daw di daw di daw di daw di daw di daw di daw ba ca marché ba dëkk ba ne yomb ca marché ba paa yeeg meeri naaw uy gaynde njaay laay daw ay gi tàkki loxo ni leen bu leen daw Dakar laay jënd sama xel may teey nee na lay jënd xel mi tey moom gaynde gi abonnement ak kër eh, abonnement ak kër gisumay kër de ñi reetaan ñi reetaan eh, ñi ñi ba doyal nan defi kër ma gis xam ne reetaan nanu waaw def leeni kër ma gis xam ne yéen a ngi ree yéen a ngi bégee waaw riir riir waaw waaw gisuma de gisuma de gisuma de gisuma de gisuma de waaw waaw fàllu fàll caam waaw waaw waaw kooku naan ca Dakar bala waaw ca Dakar bala waaw ca Dakar bala <laughs> nee na ca Dakar bala <laughs> eh, am na beneen bu mooy pare de bii moom wow wow wow ay la bii Lamine ah. moom it renforce mais foog ma xaar ay kër non bii bi foog foog kër yi ñëw na kër ñëw léegi eh, sama géeñoo kat dafa am lu neex lu ma lay wan mbokku internet yi nga xam ne ñu ngi seetaan euh, ci TikTok bi Songuanté TV bu dee ci euh, YouTube bi Songuanté TV Instagram bi it ka saalika naka noonu kon émission bi tàmbali na muy Songuanté muy lan euh, kii songo show chaque samedi lay doon mm-hmm. bu 18 jotee ba vingt deux heures dix huit dix neuf vingt vingt et un vingt en direct ak per Père Boukhar fii ci Songuanté TV kon émission bi tàmbali na mhm. man sama yoon nekkatu ci borom émission baa ngi noonu moom ak i këram lenn rek laa leen di ñaan mhm. na ngeen partager vidéo yi mooy benn partage leen ko bu baax a baax a baax a baax mooy benn ñaareel bi ngeen dem abonné ji ci TikTok bi mhm. te abonné yi ci YouTube bi Père nee na dafa bëgg tey ñu am 1000 abonnements yu bees. yu bees yu bees kon yaa ngoo yu bees sàq laa bëgg am am na koo xam ne ma ngay reetaan ca Kébémer nee naa ko maa ko xam dëkk boobu Kébémer waaw waaw Kébémer nu mu tudd sax ndeysaan oh, tur bi boutique lan boutique tar tarkinde tarkinda xaw ma nan ma nga ca Kébémer moom ndeysaan bég nañ ci yéen waa Kébémer bu baax a baax di nuyu waale waa ngum ma ngeewul am na koo xam ne ma ngay ca ndar ca ndar lay reetaanee yaa ngi ci cinquante deux mille jeunes. soixante mille dana ko mat <laughs> waaw. <laughs> c'est que Lamine gars yi li Sénégal Sénégal lii lañ bëgg di kaf di reetaan maanaam dañu bëgg di kaf euh, euh, di reetaan ndax lii lii day manqué nit da ngay war di ree man lii man saa bopp dong dong man man saa bopp képp sax man man lii daf ma manqué billaay barke yonent bi man damay bëgg di divertir Lamine lii laa xam lun lun lu nu am tey wala fu nu toll tey maam lii moo nu ko may kon lii waruñu koo denc mu nekk ci suñu biir ñu ne patt moom day mel na dañ koy iñaane ñi koy seetaan dina baaxul barke yonent bi xëy na nag ah comme li tiktok baa ngi fi nii daal moom alhamdulilah man daal man fu ma kiyee danaa ñëw indil leen yu bees tàq bëgga leen ba ngeen danaa am bis boo xam ne lamin du ñu léeb de ma ne ko dana am bis boo xam ne du ñu léeb de pour wane gars yi kene nun fu ne dañ fay ñëlbatu danañ dikk ak ñoom ca dimb dikk ak Lat Joor ba mu jugee ngol-ngol xareb ngol-ngol ba te waykat ba dar ko te naan ko Lat Joor caar ku lu joor ndóog faal ci law ma sàmba yaasin gis jàmm kodd sàmm nday bargaat ak jogomaay saa xewer dañoo sañ ci bàllaa ko koo koy sëtub saa xewer soxna mbay medun saa saaxeer saa xewer faatma ku lu ko duggee wëngeej ba mëngoone ma jul somboñ wa kone laati ise jeej fatim penda dammal teñ lat so <laughs> maanaam pour wan gaa yi kane maanaam du ci comédie bi dong sax la nu mënee am na yeneen i bërëb yoo xam ne léeg-léeg dañ cey lañ bëtu te beneen yoon danañ ko berel émission boppam waxtaanee démb Lamine bari na maanaam yoo xam ne man danaa ko indil gaa yoo xam ni maanaam yu amoon yoo yoo naa fii di xam ni maanaam euh, yu amoon la maanaam yoo xam ni yu fi amoon la yu yàgg nit ñi fàtte ko ganaar xam nga dañ naan bàyyi ganaar danaa ñëw émission boo xam ne dinaa leen indil luy bàyyi ganaar ndax lamit nit nag buy def dara loolee da cay xam dara man damaa xam ganaar bëgg ganaar eh, Lamine ndax ganaar xam nga ne xeet du bari la xeet xam nga xeeti ganaar <laughs> kon yow waroo lekk sax ganaar la waroo koo lekk laa ilaha illa allah ganaar daa bariw xeet ganaar daa am cox liix ramata njillaa nduul futt daa gung daa gung njéema yesa ak ndare ak poulet du pays ndax mës ngaa dégg li boo ko mësee dégg mës nga dégg mësoo koo dégg ma la ganaar xeetu ganaar ganaar daa am cox liix am ramata njillaan am nduul futtu am daagung am daagung am njéema yese am ndare sëyaat amoon na fi te ganaar yooyu yëpp benn bu mu ci doon daa am rendinam am saafinam am yëyinam <laughs> du ma ko décortiquer tey kooku damay bàyyi bis ba am lu mat mille personnes wala deux mille yuy seetaan ma décortiquer leen ko <laughs> ndax dégg ma Lamine te dégg nga Lamine bu ma laalee noonu ca ganaar ba pare danaa dugg ak gars yi directement ci wàllu cere cere cere menn cere ci cere maanaam nanu bayee dugub ja nanu ko góobee nanu ko bojjee ba nanu ko walee ba nanu ko taalee moom cere cerey siim cerey nëxal cerey mbuum mbuumum saab-saab mbuumum caxat mbuumum suppame dikk ak ñoom ba ca laaluy mbéb ja ba xamal leen fa mbéb ma juge wala laaluy guy xamal leen ba fa guy ga juge ci moom cere wan leen nag cere ju saf laalo piir nan koy lekkee cere ju saful laalo nan koy lekke beneen yoon dinaa leen may góor góor ga doon takk jabar te jabar ju mu takk boo mënta togg cere ju saf laalo mu may la baat déedéet waay du ma ko maye tey <laughs> Lamine bari na yoo xam du ma ko maye tey <laughs> dama koy denc <laughs> damay nuyoo rek lii may def maanaam tey dama koo jàppee rek am nuyo am nuyoo képp laa ko def pour xamal gars yi ne maanaam mbir mi fii la ci Songuanté TV pour nu nan koy waajal. laa ilaha illallah danaa ñëw dinaa leen bégal ba nu bég waxtaanu ma tegu may tem kiiwu ma naa noono per Buxaar daal ñëw na bégal na leen ngeen bég pare na ca reetaan par force loolu dong lay doon amul waxtaan naan ay euh, euh, état wala naan ay kii wala ay déedéet maanaam ñëw la reetaan loo leen lépp waxtaan ñu ree képp amul leneen par force amul neexal kenn lool dong lay doon waa ji day jàng dawal oto day jàngi dawal oto dem di passé permis bi muy passé permis waaji na ci fi ñuy passé permis laaj ko ne ko sëñ bi nan nga tudd mu ne ko mbay jóob laa tudd mu ne ko mbay mu ne ko naam ñaata weer ngi nii ngay jàng dawal mu ne ko ñeenti weer a ngi nii may jàng dawal mu ne ko très bien dama lay laaj question te rép laa soxla ci saa si maanaam question réponse mu ne ko loo laaj ma tontu mu ne ko klaxon corne fan lañ ko utiliser ci oto mu ne ko boo yóbbu siit waaw damay wax nag mel ne waxuma de am na ku yir yir ba paal <laughs> riir ba paal waaw maa la wax loolu reetaan leen rek seetoo seet xoolal ngi naan déggal ngi naan seetoo seet dëgg la <laughs> waaw boo yóbbu seet ci àll yi wax na dëgg de illaahi wallahi depuis la France ndeysaan waaw waaw Malle Thiam depuis la France ma ngay bégee bu baax a baax ay caper kii nee na ay caper maa nga ca kay maa ngi bëgg de man kay maa nga ca sama tisetu songante ngi nii maa la wax loolu barkeelu bu ma ñëwee moom laay sol léegi di def émission sama tisetu songante ngi nii sama tisetu songante waaw léegi daal fii laa koy maye gars yi gars yi di reetaan di bégee bay kontaan maa la wax loolu nit ñi dañoo war di am jàmm la ak sama orange yi euh, songan waaw kay na riir ba Louga waaw waaw nan waaw ba ba baaba sii bi depuis les États-Unis waaw waa États-Unis sax ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi bégee waaw waaw ndeysaan ah. ndeysaan ndeysaan newoon naa ña ca soixante mille nangam jëm waaw waaw te fii ba foog mu àgg ay cent ay cent cinquante mille may soog a bàyyi ah, maa la wax loolu ah gars yi foog ñu leen di bégal Lamine Sénégal dafa comme amul boo amul xaalis amoo xaalis ba pare stressé wu da ngay xëy rek dee amoo xaalis stressé wu da ngay xëy rek dangay ngay dee te gars yi dañoo jugee màggal nii di dallu day jaadu nag fi mu ne tubaarkàlla nu ndeysaan ay way xoolal loolu déggal loolu kii ya ngay riir depuis parcelle kii di riir ba paal paal de lay ree ndeysaan dëkku maam rawaan ngom ba ci yàlla ah, kii kenn am na kuy reetaani ci pir kër yi laa bëgg gis kër yi kër yi kër yi bëgg naa gis kër yi kër yi dugal leen kër yi ak abonnement yi waaw kër yi ak abonnement yi dugal leen ko per bu xar léegi fii la leen koy joxe aw fii laay ñëw leen ko jox yéen daal yéen daal xam nga am jot nag baaxul mais fu ma amee jot rek danaa ñëw <laughs> dégg nga ma nee naa am jot baaxul <laughs> même bu ma nekkee àll ba sax damay jaral maanaam ma def koy vidéo di envoyé Lamine muy dugal ci mbir mi maa la wax ah waa waaw mhm. waaw ci télévision du peuple bi maa la wax loolu riir ba caaroy kii nee na salaam salaam waaw noonu la rek de yàlla yàlla defal ñëpp jàmm man daal loolu rek laay ñaan yàlla na suñu borom di defal ñëpp jàmm ci barke yonent bi réew mi ñëpp la noo war di am jàmm di kaf di foo di ree di waxtaan loolu mooy àdduna mais foo toll li foo ñël sa kanam di kii àdduna mul solo àdduna amul solo waaw na nit ñi di bégee waaw na nit ñi di bégee bu baax a baax am na bu leen war a mayaat mais damay xaar tuuti ba ngeen àgg ci trois cent cinquante ñuy seetaan bu ma tee trois cent cinquante ma jox leen ko fi ne yéen trois cent vingt deux bu ñu demee trois cent cinquante rek ma daal leen di mayaat benn xam naa ne nag fi mu ne vingt et une heures mu jot vingt et mu jot ki depuis Casablanca waa Casablanca sax ñi ngi béggee ñoom tamit ah, waaw waa Rire Family <laughs> moom lay metti rek Rire depuis Louga waaw kii nee na ça waa TFM yéen a ngi ci jàmm nekk ni ci jàmm rek waaw ne ko ñu ngi ci jàmm bu baax ñun waa TFM ñu ngi ci jàmm wax dëgg yàlla di bëggee ñëpp depuis Allemagne Léa ñu ngi lay nuyu bu baax a baax waaw riir ba Afrique du Sud waa Afrique Sud da ngay reetaan riir depuis France waaw noonu laa ko bëggee eh, xoolal ki ki ferme-moi loolu da ca baay ganaar la ferme-moi <laughs> naa ko Ibrahima Ibrahima waaw maa ko de waaw waaw ko TikTok billaay wallaay billaay wala ñëpp ko TikTok c'est que nag day série bu am solo Lamine. waaw Baye Ganaar day euh, maanaam idée bi par exemple euh, maanaam Sénégal la. très bien te dafa bari lu lu lu lu muy wax. sa très bien Lamine est-ce que xam nga ni bari na fi ay sociétés yu tëj ay sociétés yoo xam ni tëj nañu existé nañu existé tuñu. te boo ko toppee def enquête ba xool ba ca biir maanaam ka nekkoon directeur ba wala ko ko moomoon ab jarbaatam wala doomam wala rakkam wala doomi ndeyam wala doomi baayam wala doomi nijaayam moo ko tëj moom la wóolu teg ko ca côté fa xaalis ba ne kooka di jël di yàqati si dégg fi may waxe maanaam euh, bàyyi ganaar euh, boo xoolee maanaam idée ori euh, idée originale bi moo di kat yi c'est juste pour xamal que ni maanaam nit ki dépare à zéro di ñafe di ñafe di ñafe di ñafe di ñafe di ñafe di ñafe ba dem très bien te wax la te te loolu wax la maanaam wax la maanaam benn nen boobu ma for maanaam dama for dama for benn nen àgg ñu dalal ma ci benn néeg ci néeg bi ma tëdd bi ma yeewoo yoruma xaalis yoruma dara yam ci tabletu nen ba manqué benn bu ma génnee dem di ndékki ji ci meer aana ndékki ba pare mooy fi ma naan ko xottil ma mburu te fettal ma kaas bojjal maw nen te loo ci xëpp ca soble doyul ma xool laaj foofa li nen di jar nu wax ma li tablet nen di jar ca laa wëlbati koo daw dugg ca biir néeg ba jël tablet nen ba mottili ko benn ba ma matoon table bi daal di complet ma dem jaay ko loolu mooy départ ba nit départ na fi ah, xool mujj doon sama chauffeur gis nañ fi multimilliardaire fii boo xam ne départ am soixante mille francs la soixante mille francs la départ te dégg nañ ci làmmiñam mu ne mbindeef mësta yëkkati cinq mille francs may ko te ba tey milliardaire la tey mi ngi toll ci presque plus de quarante milliards jàpp quarante cinq milliards c'est juste que pour wane ka ni nit ki mën na déparé par exemple à zéro boo amee gëm-gëm ci sa bopp mbir mi gëm-gëm la amal gëm-gëm ci sa bopp nit nekk na fi di jaay ay mbuusi ndox ba nekk ca milliardaire nit ña fi yor fi pañe guro ba nekk fi milliardaire si di rox wax bi maanaam c'est juste que pour jàngale mais loolu yi suñu borom bu la mayee alal dañ koy sàmm lamin alal alal dañ koy sàmm bu la sunu borom mayee maanaam yow ngay liggéey di liggéey di dem ba mbir mi di yokk ba nga mën cee jël ay nit nit ñooñee ngay jël waroo nangu di leen xool ñu yàqate sa li nga am waaw waaw kay bu ñëwee rek ñu daal di dem maanaam waroo nangu Lamine kenn la yàqal loolee ndax ba muy door yow dong la woon am nga droit nag boo gisee néew di doole nga jël ca nga dimbali ko te yàlla tax mais di la liggéeyal di la yàqateel loolu baaxul nit waru ko nangu da ngaa war a veiller ci liñ la jox looloo waral ci bàyyi ganaar ba maanaam may doxalee noonu wane naqari deret ndax sama alal du ma nangu koo fooyee waaw parce que jaar jaar bala non mais danaa dellu danaa dellu daa day am nag ndakaaru bari nañu fi ñëw ñoo xam ne ba léegi ban gëjee dellu seen dëkk yaa léegi kenn xamul mën a at la am nañu am ndakaaru ñaar fukki at am na ñoo xam bala ñoo dem seen dëkk dañ leen dugal ci keesu néew waaw waaw am na ñoo xam ne bala ñoo dellu seen dëkku cosaan maanaam ci keesu néew lañ leen di dugal si dégg nga wax bi ndakaaru bala nga xam ne kenn dëkku fi lamin muy tabaski ndakaaru kenn dëkku fi am na sax ñu fi tabaskee sax ñoo xam ne dëkkunu fi xëy na daa fekk ne seen i jabar ak seen i doom ñëpp ne fi si dégg bi nit kenn du ko xeebal lam yor gis nga lamin des fois dama koy faral di wax am na benn série bu ma tourné woon Espagne Espagne mosoon naa fa tourné dara doon tourné ci affaire Modou Modou yi ndax booba xam nga gis nga nit loo dundul doo ko xam dama nekk Espagne saan di dugg di dox di xool di gis entre Espagne Italie di dox di gis ndeysaan maa ngi nuyuwaale ñoom aadama Thiam ak ñëpp di leen béggee bu baax a baax depuis Zingoña mais ñu wax ma ni leen gis nga moodu moodu moodu moodu bu ñibbisee Sénégal gi may la mille francs may la mille francs sant ko may la 1000 francs fa noo yow da nga koo war a sant ñaanal ko boole ca ndax Lamine nee naa ku dem ba fekk leen fa ñu ne ba xam lañuy ñuy daj barke yonent bi duñ la may ngay xeeb billaay wallaay te bari na fi ñoo xam ne tey xoola déedéet kay <laughs> tiit naa sax dafa ne gay teraanga <laughs> daa bëri tiitar aksi moom daa bëri tiitar mooy gay teraanga dégg nga ma lamiñ gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga euh, moodu moodu yi foog ñu leen di ñaanal ndax ndeysaan dañ fay dem gis lañuy dund vraiment mu metti lool liggéey ba yombul metti na kon lañuy ñuy am akas néew te buñ ko dee indi ci réew mi di ko fi investir maanaam jaaduwul ñu leen koy yàqal te bari na fi moodu moodu yoo xam ne nangootu noo investir ndax dañ fay investir ba taay ñu yàqal leen ko am na ñoo xam ni leer na man am na ñu may seetaan nekk bitim réew te li may wax xam nan ko am na xarit bu mu mës a dal wala mbokk mu mës a dal ñu xam ko nekk bitim réew di yónnee Sénégal pour ñu tabaxal la kër ka nga jox sa xaalis lekk xaalis ba bari na barke yonent bi photo kër jàmbur envoyé ko te naan la noo kër gaa ngi avancé fekk fekk kuy fondement nu photo ko avancé la naan la noo gis nga fondement baa ngi nii kër gi di jóg mu foto fotowaat envoyé la gis nga ah kër gi mi ngi avancé di la di foto ba foto nga dem ba ñibbi si wàcc fii say rankoñ ji tuuru fii te muy saw ñaq barke yonent bi ba jële ci ay problème baaxul gars yi nañ leen di yërëm lamin di leen bàyyi xel di leen sooraale nun li ñuy daj fii ñoom lu ko raw la ñuy daj fële waaw kon foog ñu leen di xam nga dèjà lii rek xam naa ni ñoom gis nañ ci seen bopp ndax dèjà dañuy wéet vraiment lii day jaadu muy am des fois ñoom ñu ciy gis seen bopp leer na ma ña ngay ree bay bëgg dee ña ngay ree kontaan mais bien sûr na moodu moodu nañ kër mu ñëw moodu moodu yi wax ku ci gis sa bopp rek këral mu ñëw waaw pe këral këral mu ñëw li may wax yéen ko gën a xam gars yi xaalis rek la ñuy xaar ci ñoom duñ leen woo di leen ñaanal di leen duñ leen woo di leen noonu bu kuñ kuñ ci woo xaalis rek lañ la wax ah, booy fiis man de temps yi moom gaa yi ndëkk mooy loolu dugalal ma nangam te buñ la ko dugalale sax doo wax merci yéen ken amul seen fay waaw kenn amul seen fay nun ñëw partager leen live bi partager leen live bi après ngeen dem abonné ji waaw loolu moom mooy temps bi bu ko defee 74 000 j'aime waaw nay neex rek na j'aime yi gën a bari na j'aime yi gën a bari ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan billaay wallaay na jëm yi gën a bari waaw Aliou Pata mi ngi seetaan Aliou Pata Aliou Pata ndeysaan artist bu mag a mag kooku sama doom la ndeysaan Fallou Mbaye ñi ngi bégee zam ñi ngi bégee bu baax a baax sa majesté ñi ngi leen di bégee bu baax Mor Diop waaye ndeysaan moom eme na jay naa fay ndeysaan ñi ngi leen di bégee bu baax a baax a baax a baax a baax a baax noonu la rek tey moom danoo ñëw fii moom pour bégal leen maanaam pour kaf ak yéen waxtaan ak yéen reetaan kaf foo reetaan wax loolu kese la du leneen nag du leneen pour ñi nga xam ne ñooy soog a dugg maanaam waxtaan la rek kaf foo ree te xam na bu affaire bi jàllee euh, vidéo yi dinañ ko dagg affaire yëpp dana nekkaat ci euh, mbir mi dinañ ko seetaan waaw liñ fi léeboo nag liñ fi waxtaan yëpp yëpp ñu ngi koy enregistré di ngeen ko am waaw dingeen ko am ñu ngi leen di béggee bu baax a baax wakaam wakaam mooy sama koñ ba ma dëkkoon cité assemblée ndeysaan foofu yàgg naa fa kër général Samba Fall laa dëkkoon kër madame Fall waaw cité comico dëkk naa fa ndeysaan waaw prince prince Samba nee na merci waaye lay wallaay prince Samba joxe na ay kër yu bëree bëri am zoo ndeysaan bibisu bibisu Ndiaye ndeysaan aca kër yi nag na kër yi ñëw na kër yi ñëw na kër yi ñëw bu ko defee léegi rek ma may leen waa ji dem mbaam am cinquante cinq ans lu jigéen <laughs> cinquante cinq ans la juróom fukki at ak juróom lu jigéen waaw waaw nijaay ji ak yaay ji ak papa ji na nag ah foog nu takkal ko jabar waaw boobu laay war a mayee nii <laughs> <laughs> boobu kay boobu laay war a maye nii léegi nii boobu it moom Lamine ree ree force la neexal kenn maa la wax loolu waaw boobu moom laay war a may gars yi léegi nii waaw <laughs> beneen yoon beneen beneen yoon dinaa leen may histoire aatu aatu dinaa leen ko indil xam nga waxoon aatu réer na ma Youssou Ndour wayoon aatu daa feeñ te maa ko jàppi woon maa la wax loolu te dinaa leen nettali histoire aatu waaw ndax dégg nga ma Kéba Ké waaw Ké Kéba Sidi Amadou Sy ayca ay waay waay waay déggal ki naan sama yaay daa am tension bu bari bu may xoolal bu may léeb rek da koy def silence ya wala nga takk casque yow doo nga di ko déglu waaw waaw waaw waaw maa la wax loolu ayca ayca page YouTube bi dem leen ngeen abonné ci YouTube bi ci YouTube bi dem leen ngeen abonné ci waaw YouTube bi yëpp lépp lu ñuy maye maanaam danañ ko fay maye ngeen di ci ngeen di ci jot waaw en live and direct nag lay doon waaw kii nee na lil góora nee na per dama laa bëgg yàlla xam na loolu billaay maa raw barke yonent bi ah, waaw waaw eh, cinq cent dix sept ko matal trois mille cinq cent dix sept. Ah, waaw waaw na mat na mat boog na mag xoolal dama leen di may benn. denc beneen bi. beneen bi may denc. bu matul ma dagg ko. waaw dama leen di may waa ji toog cinquante cinq ans xamul luy jigéen moom laa leen di may bu ko defee après bu abonné matee fële bu ko defee nag après ma ñëw ak yéen ci beneen boo xam ne nag. moom mooy bi ñetti silib yi duggoon ci biir ñeexum cere ja <laughs> silib yuy naaw ba dugg ci biir ñeexum cere te cere ja kat xolal ab jàngkat lañ ko doon toggal te war koo yàq siimal ko ko jigéen ay sëriñ <laughs> c'est que fi ñu doon toggee daa tiim ligne gi ligne gi da koo tiim ñu ubbi mbana yi mbana yi ñu doon ñeex yi ñu ubbi noonu xam nga maire dañuy baaral ubbi mbana yi teg noonu di baaral far mu ngelaw ni mu ngelawee nag ñetti string naaw dugg ci biir ñeexum cere ja kooku du ko maye tey <laughs> lawin loolu du ko laal <laughs> loolu yun weeroon naaw dugg ci biir ñeexum cere ja doon togg te maire bi kat ñëw na nag ba jël kuddi gi ba yëngal ba yëkkati ko xoola ba yëkkati nii xool te naan ah ay moom mbàq gi de moom aka naqaree aka naqaree ñoral daal di delloowaat te moom la ñu war a yàkkal jàngkat bi war a jàng-jàng yi kooku ko maye du ma ko boobu du ma ko laal tey kooku rendez-vous laa leen di jox waaw boobu moom rendez-vous laa leen di jox waaw ah, boobu moom rendez-vous laa leen di jox rendez-vous laa leen di jox de bibisu billaay wallaay ne ko rendez-vous laa leen jox na kër yi ñëw ma may leen waaw ki toogoon cinquante cinq ans xamul luy jigéen maanaam musta sax gis jigéen nii moom waaw moom tool ya kër ga tool ya kër ga ñu may ko jabar ma nettali leen nam doxeeg jabar ja <laughs> te te yaayam sax nekku fa bàjjanam la fa nekkal bu kër yi bare rek ma may leen ko <laughs> na kër yi bari ah te vingt heures cinquante sept fi mu ne vingt une heure euh, euh, vingt une heure et quart nu arrêté vingt une heure vingt une heure et quart rek ndax nag yin den ci ëpp de c'est que man maay bëgg gars yi abonné bu ko defee nuy mën di ma am samedi bu jot ah. foog foog foog YouTube bi àgg ci yenn abonnement yi bu ko defee samedi bu jot ñuy am per bu xar en live en direct ci TikTok bi ak ci YouTube bi mm. barke yonent bi ma leen di bégal par force ñuy bég Lamine booy bi cinquante cinq dund na ba am cinquante cinq xamul luy jigéen mës ta teg bët sax jigéen papa jeeg nijaay jaag bàjjan baag yimpaañ jaag ñépp mànkaloo woolu ko ni Moodu bam ne naam nu ne ko toogal mu toog ni ne ko ah ñun ñëpp kat fas yéen yéene nu fas nañ yéene jël li nu yor li nekk suñuy gafaka dem wutali la soxna mu ne maanaam pour nu ne déedéet da ngay góor te toll nga ca romb nga ko sax da ngaa war a am soxna am ak njaboot ngir ëllëg boo fi jugee mën leen fee bàyyi ñu la koy xoolee mun leen ah moom kay lu ngeen def baax na nangu naa ñu ñu may ñu wutal ko jabar muur jabar ji mu ñëw sëy si def naag soxna si lu mat juróom benn weer ci biir néeg bi ndaw si day tëdd nii mu tëdd nii kenn du xool sa morom nu dem un an un an quinze jours un un mois un deux mois un an trois mois un a quatre mois un a cinq mois un an six mois même chose day tëdd nii ndaw si tëdd nii ndaw si toog ba mu yàgg dang ah, den si xanee maar waay ndaw si xam na lépp ndaw si xam na lépp orloos toppal fële ndaw si woo bàjjan bi ne ko bàjjan man kat ki ngeen ma may muudu mii man daf may bëgg a jaaxal est que bàjjan xam nga ni man ba ma dalee sëy ci biir kër gi ba léegi at lu topp ñeenti weer moo day tëdd nii ma tëdd ni bàjjan bi na ko yàlla tere musiba ma bëggu ma li wax amul mu ne ko ah man de boobu ba léegi day tëdd nii ma tëdd bàjjan bi ne ko yow yaay dof xanaa doo jigéen yow mii jigéen yow yaay xami feem yaay xam nangay def ak moom moom xamul xamul dara di moom xamul comme xamul kay yow yaay ki ko war a xamal mu ne ah bàjjan man lii xamul woon na seen xol sedd ndaw si dem sa marché ba jënd ñeenti andu and bu ci nekk ak potu cuuraayam ñeenti andu ak si ba ci néeg bi angle bu ne mu dóor fa andu angle bu ne mu dóor fa andu boyal ba mu boy sànni ca cuuraay néeg bi di sërërëri mel na foo sànni lacrymogène heure tëdd daal di jot fekk ndaw si toggal na moodu ganaar goo xam ni ganaar gu ne futt la roof koog jinjeer ba mu saf sàpp ba pare defar jus jinjeer roof ganaar geeg jinjeer ba pare defar jus jinjeer poobar bi moom day tibb di xëpp <laughs> soosu poobar bis boobu laa ko gis soosu poobar defar soosu poobar teg nii <laughs> heure ndaw si ak si tàllal nàpp bi jël ganaar ga na ca tekk te ganaar gaa nga ne ngang tànk jën yi mel na jab guy lakk luy gunóor jab guy lakk luy gunóor moo du na jàkk tiim ganaar gi xool ko loxom bi daa nu ganaar gi fëpp soqati tànkub ndeyjoor ba ne ko pelam lam àndaaleeg poobar ca biir presque rek mat na liibar xanaa yaram wa war a ñettatati lekk ba regg ba pare raxasu ndaw si dóor ko liitarub ji njeer saa waay ne ko fuuf naam xanaa kooku war a mën a ne en activité waaye teewul ba muy tëdd xam nga nu defa daa sol caleçon teg ci kiloot pantalon jookin teg ci jiin waa parce que yooyu la xam dem tëdd ndaw si dugg ca salle de bain ba sangu ba set def bu yemam fii bu yemam fii nii waaw boole ca biir moom zéro pour cent waaw ci biir zéro pour cent fii mu def bu yem fii day dem ba ca angle ba la ca roq ba daan ne nii sëgg comme nam koy defee seeni fem ne pëy sawaay ngi jaaxaan ci lal bi di ko xool rek bu demaatee nii ba ca angle ba le ne pëy sawaay di ko xool rek bu demaatee ba ca angle ba le ne pëy sawaay ko xool rek deful benn ndaw si nag daan na xaaral nag ah fi mu ne nag utiliser doolee ngi bëgg a jot ndaw see fekk waa ji fi mu tëdd ci kaw lal bi ndaw si dañuy tek teg ñaari tànk yi nii ñaari tànk yi nii la teg séqwaay yi si diggu lal bi ne ciix jàpp tànk jiin yi xëcc bif jiin bi yummiku tànk pantalon jookin ba mu xëcc culotte ba mu xëcc caleçon bi mu a ceex xëcc saa waay naan bëxër ñett ndaw si ne ko tipp poñe ci put gi yëkkate ba ci ko ne ko dekk ci lal bi li mu takkoon ci niggil ne ko faseet faseet ne ko juróom teg nee nekk dungu ne tekk toog ci kaw moom ndaw si toog ci kaw waa ji tekk toog dem gauche dem droite dem ci kanam dem ci gannaaw rek waa yokku bàjjen bàjjen bàjjen ndaw riic ne riic ne ci dégg bàjjen bi ne bëri na ko Moodu lan la mu ne ko bàyyi ko bàyyi ko ko. <laughs> xoolal ki naan per rus nañ la de man kay xam naa ne damaa mën a fen loolu moom jërut wax xam naa ne moom man damaa mën a fen loolu jërut a wax jërumaa rus. Eh, te xam nga xam nga rek day kii mais am na dëgg yàlla. 96 600 j'aime ne bàyyi <laughs> wóo yaram moo yaay ne bàyyi ko de wu yaayooy xoolal ki naan per lii naa ko yow de fu ma pikiree joxe la fay doom yow mii xam naa ni mën naa fen man mi waaye yow it yéey at ah, loolu mooy mooy la ma doon wax sànq loolu ab loolu beneen yoon laa leen ciy dikkal ah, aatu aatu Jean Michel Kank commande ba mag ba déparé woon France moo moo ñëw ba ci bureau marché Ndar ba toog waaw Jean Michel Kank lañ koy wax waaw benn commande tubaab la woon ci jamonoy aatu moom la ñu woo bureau ca Ndar la nekkoon moo ñëw toog mu tegal ko dossier aatu mu laaj leen ni leen kii ngeen ma tegal dossier am lan mooy liggéeyam ñu ne ko kii day dugg ci toolu jàmbur yi yàqte toolu ñebbe day àgg góob yóbbu kenn du wax toolu gerte mu déqi kenn du wax toolu xaal da yor jaaseem di daggate di yàqte xaal ji te kenn du ŋàng day dugg ci dëkk fekk xar yu baax yaa nag yu baax yëpp mu dajale def ko gét daal di jiital yóbbu te kenn du ŋàng jabaru jàmbur dalay xool nga jekk rafet mu jël la yóbbu te kenn du wax seede yàlla ndax boobu aatu doole jaa bari aatu bu ne tegg tànkam ci bascule boo tëlee bascule bi lu mu deedee ci jamono yooyu na une tonne cinq cent xanaa kookoo ponkal foofu laa yem beneen yoon laa koy àggale dama koy cof noonu rek <laughs> loolu dama koy cof <laughs> dama koy cof rek. <laughs> ko laal tey moom mun naa wax ni. ma ko laal. Euh, du ma naa wax ni. presque sa ñàkk kiiñaan tey la ma gën a wóor. àdduna ndax euh, wax dëgg yàlla. am na ñuy laaj naan est-ce que lamin Samba dafa jël per non non non munuma ko sax waaw munuma ko sax xalaatuma ko sax mais aussi sama yaram sax mu ngi daw parce que sa se voit que aujourd'hui tu es un très grand artiste et puis de renommée internationale yow yaay rare artiste boo xam ne taxaw nga ci seenu Bercy Bercy yàgg na te maa seenu Bercy maanaam bis boobu man maa tas Bercy yaa tas maanaam dama man damaa wàcc Bercy jeex Bercy jeex waaw mooy rare waaw mooy rare artiste yoo xam ni produire na ci kaw seenu yuusu nduur ak Bercy damaa wàcc rek Bercy jeex mu nekk loo xamante ni tey man su ma taxawalee lu mel nii mhm. nga ñëw jàpp ci mhm. jàppati ci sax laa wax ndax euh, per man at bu ma judd sax dof judduwu ca bu ma bi may ñëw Futurs Médias mhm. sama bande annonce yaa ko defar duma ko fàtte mukk man ak yow ak Kébé ak Mao Cissé bande annonce bi defe naa ni tourné nañ ko presque six heures de temps millier bu ñu dem ñu ne milieu bi baaxul milieu bu ñu dem ñu ne milieu bi baaxul nga takk tëni ba <laughs> mais fi nga fi nga fi nga dajee dëpp gi mooy publicité bi nga def ak Wave ak euh, Wally Seck waaw waaw waaw ñooñ moom ñooñ dañuy te ñooñu dinaa fexe noo collaboré woo ak ñoom ñooñu il faut ñu ñëw Wave moom Wave moom ba maanaam xam nga nit warto sax euh, ndamu. yaa si cent trois mille j'aime cent trois mille. cent trois mille j'aime. waaw xamoon naa dara faa kay. xam nga xam nga nit am na yoo xam ne sax mm. da koy sante rek suñu borom. Mm. Mm. nit dangay ngay war di sant yàlla. mais tim da ngay war di sant ay nit. dangay war di sant ay nit. Mm-hmm. ne boo xoolee wéef am na fa kuñ naan euh, Ousseynou Diarra. Mm-hmm. Ousseynou. vraiment nit ku am solo nit ku baax waaye mm-hmm. boo xoolee Abdou Wahab Fall moo boole ak ñoom mm-hmm. Wahab mm-hmm. waaw ak ñoom euh, Ousseynou tamit ñaawalu ca dara fi mu ne Wave man Wave lu ma fa bëgg am ko waaw mais nañ ñëw euh, nañ ñëw ci songante wax wax naa la ko daneen ñëw dañuy ñëw loolu kay maa la ko wax Wave Wave day ñëw te bu soobee yàlla loolu man maa koy dox maa koy lijjanti dinañ ñëw sponsoriser affaire yi hmm. bu ko defee mbir mi di daw moom kay di fu ñu gisati TikTok bi nii dinañ gis affiche su Wave ba gis pingouin ba ca gannaaw waaw ah visibilité la ñuy wër di te xam nga léeg-léeg euh, da daa moom daa toll foo xam ne par exemple tey hmm. maanaam mën nañ ne moo jiitu ci Sénégal léegi hmm. ndax sénégalais yi moom lañ bëgg xam nga li ma la wax moom kon day jaadu moom muy am communication bu baax te man lépp Wave laa xam Wave léppam laa xam amul dara lu ma nit di laaj ci wéef te xaw ma ko xam naa lépp tout te ñoom ñoo ma ko wax ci ñoom laa ko jëli looloo waral nga gis lu ñuy def rek lu ci bari bari nga gis per bu xar seen tournée tournée nationale yi ñuy def tournée bu ñu mënti def man maa koy def ay tourne national biir Sénégal dem dëkk yëpp tout bu ñu génnee benn produit benn affaire bu nu war a lancer yëpp man maay def tournée nationale biir Sénégal Ndakaaroog Ziguinchor Kolda ak Bignona fépp dem def kon ñoom sama borom boole na noonu boole na ma ak ñoom te ka ko yore nu jara wax dëgg yàlla sama nit la te war na mag mbaax te lu ma ko mës sant rek def na ko looloo tax ma ne am sañ-sañu ne man danaa fexe ba ñëw ci Songuanté TV alhamdulilah incha allahu rabbi man kontaan naa trop vraiment sama yaram sax mu ngi daw que sa ñàkk laa doon wax léegi man ak yow ñu ñu ñu bokk béréb bu ñu liggéeyee man ak yow aussi tamit ñu am fu bëri fu ñu jaar bokk tamit benn koñ keroog ba ngay takk soxna yaakaar naa kenn jiituwuma fa yaag madame ba rek fa ñam kenn jiituwuma fa loolu moom fu ma tool dama koy wax di yaag madame wax wax dëgg yàlla billaay gis nga gis nga gis nga euh, Lamine mm-hmm. nit kenn du ko xeebal bisam mm-hmm. du ko xeebal bisam mm-hmm. waaw nit gis nga nit am bis ak lu bis bi tuuti tuuti tuuti tuuti gis nga dafa am loo xam ni moo gën alal mooy yëg-yëg yëg-yëg man nit ki xoola yëg ma rek man rek gaañ nga ma waaw yëg ma rek man gaañ nga ma mhm. nga yëg ma moo ma gënal alal ji nga may jox mhm. alal yaa ngi si cent dix mille léegi dana cent dix mille xoola fii buñ xoola buñ fi doon nekk ba minuit dara boo moytul dana dem ba cinq cent mille zem léegi kañ la ñuy joxante rendez-vous <laughs> ma xool ndax nag no samedi waaw xëy na samdi ndax dafa am liggéey bu moo war a démarrer d'ici euh, trois jours te xaw ma ba xam euh, dama war a génn Dakar wala damay rester biir. damay bañ nag site internet yi xaaral. lu ci am rek dinañ ko def lu ci am damay bañ site internet yi. Hmm. interprété ko neneen euh, Songuanté TV per bu xar liggéeyu fi lamin Samb embauché wu ko mënu ko embauché na leer non dama bëgg mu leer dafa ñëw. pour jàppale ma wali laa jil karim bugguma kenn ku fi dagg benn naan per bu xar embauché par Lamine Samba <laughs> Lamine Samba débauche per bu xar xam nga yooyu moom <laughs> nañ waxante dëgg yooyu laay bañ waaw non non moo tax ma koy leeral en direct xam nga xam nga loolu bëggoon sax wax affaire site internet yooyu waaw gis nga gis nga euh, euh, comment dirais-je liggéey daa war di sell mm. liggéey nay sell tey rafet mm. man daa am benn xale bu jigéen bu ma mës a defal interview looloo waral man bëgguma sax interview mm-hmm. interview ci internet nii mm-hmm. billaay nii may waxanteeg yow nii barke yonenti yàlla Muhammad barke Cheikh na Cheikh Sadbu am na ay site internet yoo xam ne ba nii nii ñi ngi may woo téléphone mm-hmm. pour bëgg ñu def interview wala waxtaan mais dama leen di tëbal rek parce que bëgguma sax def interview xamal tax man dama ko mës a def yàgg na def interview bi ma defee interview am lu ma wax par exemple ce titre ba titre bi ñu titre waaw ñu bind fa leneen loo xam ne seetaanal ba mu jeex doo gis na Père Boukhari wax na lii barke yonent bi mu naqari ma trop c'est parce que lu ma waxul ñu bind ko moom ndaw xale bu jigéen bi ma woo ko téléphone ne ko nga baal ma de man dama gis euh, li nga titre ba pare def sama photo ma xanaa pour man xëy na da juum xanaa mu ne non pourtant per juumuma de ma ne ko lu tax kon def ko lu tax nga tiitre lii lii lii est-ce que ci waxtaan bi nu waxtaan man ak yow mën nga ma génneel fan laa waxee lii mu ne ma non c'est juste que xam nga boo booy tiitre il faut nga bind loo xam ne day tax nit ñi mën a dugg ci site bi pour seetaan ko mu ne ko mooy maanaam yow foog da ngay bind lu lu garaaw quoi lu ñàng quoi loo xam ne da nga naan per bu xara ko wax te or ko waxu ko pour nit ñi mën a dugg seetaan mu ne ma waa c'est que loolu dong la mais maa ngi ciy jéggalu ma ne ko alhamdulilah yow ba nga ma ko waxee ma ne ko jërëjëf waaye nag na la leer ne lii nga ma bindal du ma la ko baal. kii baagi kàcceeg baagi dootul amati waaw ma ne la ko du la ko baal. looloo waral boobaak léegi site internet bëgguma sax di def in billaay barke yonent bi chaque deux jours trois jours ñu may woo ay interview interview bu ñu waxee dama naa leen waa suba ëllëg ngoon naa nga jàpp kii ba dem bëgguma ko gis nga liggéey day sell tuumaal nit baaxul site internet yi bari na fa ay problème yu am ci réew mii génn ñu ca ci. ñooy dem fee bind fee dem fee bind fee dem fee wax fee dem fee te loolu baaxul nit mën ngaa liggéey mu sell rafet ba dee te kenn ñaaw kenn du mer fii de kenn du fi yàqee nit kenn du fi wax lu ñaaw kenn du fi def lu ñaaw fii kenn du fi yàqee nit kenn du fi def lu ñaaw kenn du fi wax lu ñaaw heure bi ñu joxante woon jeex na ma sant di la gërëm di la ñaanal yàlla encore une fois de plus débauché wuñ ko. <laughs> encore une fois de plus liggéeyu fi non nay day leer parce que gis nañ fi lu nekk. ñoom ñoom nan xam daal ne ñun ñaar ñëpp ñoo bokk nekk Futurs Médias. fa ñuy liggéeyee nga am bërëb boo am boo am man dafa jaadu ma ñëw jàpp ci bërëb bi loolu dong la mais du per bu xar day liggéey fii du lii du lii loolu du dara maanaam man maa am envie man maa am envie. ñëw fekk sénégalais yi fi ñuy seetaan ndax damaa suivre say live gis mu bari lool ñuy seetaan mu jaadu nag ñooñee léeg-léeg am kuy ñëw koo xam ne bii na da leen di bégal nuy reetaan mani naa ñëw pour bégal leen reetaan yaa ngi ci jamono ji presque si trois cent cinquante huit ñu koy seetaan en direct trois cent cinquante neuf yaa ngi ci cent quinze mille huit cent j'aime cent quinze mille huit cent j'aime loolu nag sa daraja nga indaale sa Pastef nga indaale say mbir nga indaale ñoo ngi sant ñëpp xaadim jërëjëf bàyyi seex yi maa ngi kontaan ci yow lool sama caméraman bi Mohamed caméraman chef caméraman yi fii zo chef technicien yi sant nañ la gërëm nañ leen ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm per bu xar nag day tontu benn day da leen di may benn lépp ñu tàggoo ko benn bu gàtt rek benn rek laa leen di mayaat boo xam ne jox leen rendez-vous beneen yoon tey bëgg naa nii mu nekkee ay euh, trois cent euh, euh, soixante quinze bëgg naa beneen yoon ñu nekk lu mu dee dee sax mille personnes yu toog di seetaan ma bégal te boobaa bis bu ma ñëwee lamin nu démarré defu ñu sax dix minutes mu dem ay mille nangam non duma sol lii. ah garaam bu laay sol def caaya jël koppati bi langal nii. maanaam indi jëmmi bàyyi ganaar toog jàkkaarlook ñoom xanaa kon boobaa dina yëngatu te booba nag bu boobaa fa nii sax du ko bëgg lii lii nii lii dañ koy randal nee man sànnil mag basak nii rek ak benn njegenaay jox ma baraadaa kaas tegal ma nii may attaaya di waxtaan ak ñoom may ñu benn ñu <laughs> place bi daa déparé ndar jëm ci ndakaaru benn waaye commentaire na sànq nee na te bu dee léem nag day mel na kuy wax dëgg. Ah. day concentré wu. <laughs> nit waaye mu xaar li mu war a ree balaa ngay commencé. waaw na ree li mu war a ree waaw ree li nga war a ree <laughs> cette place bi non du ma boobu sax bii dama koy denc naa denc bii waaw xam naa ni damay bañ ndax nee nañ ma sànq dafa am benn maire bu xaw ma dafa crise cardiaque xaw ma dafa am feebar xaw ma lan. Hmm. te damay bañ eh, te bii ma doon maye bii ma doon maye moo ko mayee xam naa damay bañ ñu ba police fekk nu fii naa leen may góor gi duggoon ci banque bi retiré segub 3 millions ba pare denc ko ci biir poche bi xale bi jigéen bi topp ko di ko tafu <coughs> kooku force la amul neexal kenn <laughs> reforce la man par force man sama sama amul neexal man damay wax dama naan lii reetaan force la yaa ngi 120 000 góor gi daa dugg ci banque bi retiire 3 millions xam nga mag ñi la ñoo muus caay ji mu sol da koo summi lem ko dugal ci saak de seb jiin ndege biir jiin ba poos bi da koo bënn am na pantalon jóokin bu ne ca biir daa dugal loxo bi ci biir poosu jiin bi dugal xaalis bi ca biir pantalon jóokin ba tëj kook fermeture ba pare màpp màppal ko di dox ndànk nag wéeg koo saak bi mu def caaya ji di dem caaya ji la gàtt pour nu defe ni xaalis baa nga ca mu wéeg ko mu ñëw ba ci arrêt bus bi dugg ci biir bus bi fekk xale bu jigéen baa nga koy topp bi mu génnee ci banque bi bi mu duggee ci bus bi jafandu ci kaw weñ gi nii taxaw xale bu jigéen bi ñëw ba sës ko teg ko dënn bi ne ko tegg dënn bi nii moom it tafu ko rek jàpp ci kaw bus bi dem ba ci kàmb yi gëjëng gëjëng xale bi jigéen bi mel na lu buux paa bi dënn bi ne ko ko xaa demaat dikkaat mu demaat dikkaat xale bi jigéen bi bàyyi ba xool xam ni secours si gën na noo bari gërëñ gërëñ ji gërëñ gërëñ ji mu ne na roof loxo bi ci poosu paa bi pour génne xaalis ba dana roof loxo bi far jaawale poos ba ak braquette ba ndeka braquette góor gi tëjuwul dañ yor loxo bi ci biir braquette bi ba a ci góor gi ne ko téye ji na neex na neex ba kolobaan baa ma yuuxu ne wusaat ci <laughs> asalaamaaleykum <laughs> wa rahmatulahi taala wa barakaatu merci beaucoup <laughs>